barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur sant di leen ziar di leen màggal di leen ndamoo di leen tiitaroo di leen bëggee bu wér man la seen mbokk sénégalais moo la Morgun maa ñëw di waxtaan ak yéen ci tolluwaayu réew mi ñëw it di waxtaan ak yéen ci lu leer lu wér te wóor comme ni ma koy waxee gis mu leer wax mu wóor gis mu leer wax mu wóor bu dee la nga nar a wax ju dooni waxet kese dañuy teg ay preuve ci sa loxo boo gisee rek day leer boo waxee day wóor kenn du ko mën a dindi ba na ma sàmb kon nag comme nu ma leen ko waxee euh, c'est vrai vingt heures la waxoon mais il fallait ma def ko parce que dafa am ay affaire yu ma war a dox aussi j'ai des préoccupations j'ai des occupations aussi à faire donc il faut ñu def ko après ñu jàll ci leneen parce que on n'a pas assez de temps quand même on s'excuse on s'excuse quand même mais il fallait ñu def ko pour après avancer de toute façon le live est là live bi joxuñu ko lekk joxuñu ko naan ku am temps seetaan heure boo amee temps seetaan c'est la même chose man mi dina wax ni final coupe du monde bi ba nii seetaanuma ko <laughs> mais daw ma saa yu ma amee jot dinaa ko seetaan xawma sax lan lañ yan maay lañ sol adduna bi tant que la ñuy def ñi ngi koy enregistré mu nekk fi rek jarul daw na nit di def li luy farata buñ paree rek dinañ jël seen temps dem seetaan yi donc man jàpp naa ni may def samay farata saa yu ma amee temps dinaa seetaan mi ngi ci internet bi jógewu fi xaw kañ lay doon saa yu ma amee jot rek dinaa ko seetaan mais vraiment moment bu coupe du monde bi finale bi amee entre France ak Argentine seetaanuma ko xooluma sax ban maillot lañ sol parce que chaque jour may concentré sur l'essentiel donc comme nu nga ko waxee rek encore fois dañoo ñëw pour leeral leeral li nga xam ni mooy l'affaire Pape Alé lan moo tax ñu jàpp ko dina ñëw ci lépp lu may njëkk a def nag mooy envoyé li nga xam ni nee nañ lettre bi Pape Alé moo ko bind bàyyi ko fi laay njëkk a J'informe l'opinion nationale et internationale que je fais l'objet d'un acharnement et d'une persécution abominable et abjecte de la part du régime de Macky Sall. Ils ont décidé de me faire taire à tout prix en exerçant une violence inouïe sur moi, jamais vue dans un registre dans un régime démocratique qui respecte les droits de l'homme. Face à cela, je me nourris d'une détermination qui me permet d'endurer la souffrance. J'implore, j'implore pas de soutien. Tout soutien doit être sincère et chevillé au respect de la démocratie, des droits de l'homme et les principes qui régissent l'exercice de mon métier de journaliste. En attendant, ils n'ont qu'à creuser une tombe dans ma cellule pour m'ensevelir, car j'ai décidé de me battre jusqu'au bout. J'observe une grève de la fin pour dénoncer ma détention arbitraire et injuste. Je confie ma famille, mes enfants au bon Dieu. Pape Alenia, journaliste sénégalais. lii nag ñu jàngat ci jàngat bu doy waar boo xam ni man ba ma ko jotee lu ci bari waxoon naa ceeg Pape Alé yàlla dafa def ni Pape Alé après sa sorti de prison laa njëkk a wax ak moom mais dafa dafa bari baatin bu ci am mooy Pape Alé ci semaine buñ koy jàpp ci semaine bu ñu koy jàpp il a appelé deux personnes pour demander moo numéro de téléphone ci semaine bu ñu koy jàpp bu ñu koy jëkk jàpp il a ki nga xam ne mooy Maxu Mandela di borom këru Coro Mandela Pape Alé Niang woo na ko demandé ko sama numéro téléphone ci semaine boobu nga xam ni moom xam ne dañ koy jàpp moom moom Pape Alé Niang il laa a demandé à Maxu Mandela pour mu jox ko sama numéro Maxu Mandela maa di que bu mu ko joxee sama numéro lendemain lañ ko jàpp ki nga xam ni mooy Assane Diouf le grand Assane Diouf maa di que Pape Alé woowoon na ko ci semaine boobu di ko laaj sama numéro téléphone ci semaine bi nga xam ni musuñu wax maanaam moom suñu giiru dund ci semaine bu ñu ko nar a jàpp Pape Alé Niang woo na deux personnes pour demander sama numéro téléphone deux personnes pour demander sama numéro téléphone n'est-ce pas donc demande de deux fois sama numéro téléphone maintenant bi Pape Alé duggee ci kaso bi laa commencé di am connexion ak moom te waxuma ak moom mais ma jege ko lool te wax ba léegi waxuñu bu mu génnee ci kaso bi la même jour il m'a appelé bu mu yeggee këram rek il apple dafa am wax moo indi wax comme nu ma koy waxee bu ma woowee ñuy waxtaan mu soulever de dossiers par rapport à lui par rapport ak manigance ak manipulation ak mensonge bi nga xam ni gouvernement bi dafa jógte woon pour jaarale ko ci man pour liquider Pape Alé loolu moo indi waxtaan parce que bu ma woowee je l'ai fait comprendre que biñ la tëjee ci kaso bëri na ay journaliste yu yàq sa der di fen di la sosal ma lay défendre bec et ongle tay la ci sama bakkan jël gën devance sax wax bi di leen léegi di leen di leen wax ay musiba nguur gi dañoo gisoon ni ci man lañu waroon jaare pour jox ma le maximum d'informations sur Pape Alé Niang pour liquider Pape Alé Niang pour ma décrédibiliser Pape Alé Niang man ma def tekk ak sama tekkaaral de nature moo ma ci loolu laa ko doon wax ma ne ko Pape mu ne ma waaw ma ne ko nee nañ ma am nga frère boo bokkal ndey ak baay bu nekk ministère euh, du budget ndey ak baay bu nekk ministère di budget pour ma xamal leen ni yow li nga leen di critiquer yëpp am na sa frère bu nekk ci gouvernement bi ma jàpp ni intéressant wul parce que sa frère bu jàngee ba mun lu muy def ministère di budget nit yi ñi ngi fay liggéey te politique warul leen fa dugal liggéey moo leen fay dugal mu ne ma noom mais booy <laughs> te formidable ma ne ko man dama gëm ni à part ministre bi nga xam ni politique moo ko fa teg ñuy liggéey foofu yëpp kenn warul ci nekk politique da nga dafa war a nekk loo xam ne sa domaine de prédilection la da ko mun xam ko am ci ay diplôme donc c'est normal que sa grand frère jàng ba ne ah am ay diplôme ñu jël ko foofu moo tax intéressant wul pour moo wax ko population mu ne ma non <laughs> booy yow booy yow yaa garaaw ma ne ko ok Pape ñi ñëwaat ne ma demal nga wax ni Pape ñëw na Mermoz man ne c'est pas intéressant mu ne ma ma ne ko waaw parce que dama ne Mermoz kenn mënu fa dugg te woowuñu la te ku ñu woo nag jox la mbaa ñu wax la fii gars yi raguñu Macky Sall de man Macky Sall bu ñëwoon Canada ma ñëwal damay dem wuyu ji ko kenn mënumaa tere dem wuyu ji ko j'ai de chose à lui dire par rapport à ma société par rapport à mon ma population lu ñuy dund donc Macky Sall mënuma toog di wax a wax a wax ba yàlla may ma possibilité ma war a jàkkaarloo ak moom wax ko sama ñetti dëgg ma koy daw loolu du ma ko def. bu ma Macky Sall ñëwoon Canada fii ne ma Mollah dama la soxla barke alxuraan ma géej gi ñëw toog ak moom ne ko waaw bisimilah loo may doyee ak fulla ak fayda mu ne ma lii lii ma ne ko kaay jàppale ma ma ne ko nan laa la mën a jàppale yow jeexal nga di yow fu nekk nii un la fi defee lu ñu lay jàppale ci lan. loolu laa bëgg nga expliquer ba ko booba dinañ dinaa ko wax wax ju dëgg wax ju gore wax joo xam ne ragalu ma ci tiituma ci génn ndànk dem sama yoon donc ñun rag kay nit yi amuñu pour ragal Macky Sall wala daw Macky Sall wala moytu Macky Sall ku fi Macky Sall woo da koy wuyu ji nit la c'est président moo ñu jiite donc dañu ko war a wuyu ji di wax ak moom bu ñu wooyee téléphone dañ koy jël di wax ak moom du dëmm du yàlla du yonentu c'est un ancien spermatozoïde futur cadavre gémmiñ la yor nga yor gémmiñ làmmiñ di coob morom ba te ñoragul bu la woowee waxtaan da koy ñëw déglu bu la waxee li mu lay wax boo ci àndul nga ne ko ànduma ci boo amee loo koy wax nga ne ko lii laa gis gisuma lii lii baaxul bàyyi li ngay tëj ci kaso yi bàyyi li ngay sosal bàyyi li ngay nangam te wax ko lu dëggu parce loolu mooy dëgg parce que kii nga xam ne mooy yonentu yàlla Muusa bu muy gisi na mais yàlla da ko ko nangul ko wax demal nga gis ko waaye waxal moom ci njëkk ak teranga loolu ko yàlla wax mu ne buur la waxal moom ci njëkk ak teranga waaye wax ko sa soxla wax ko li nga yëg loolu la yàlla wax musaa Moussa dem jàkkaarloog Firawna wax ko lu mu koy wax ci dëgg waaye ci yar donc doo jàkkaarloog Macky Sall di ko saaga ndey mais dangay wax luy dëgg lan moo tax ñu war a ñëw di wax fii ci internet yi di kaas di yuuxu nekk ci mbedd yi di xeex war a jàkkaarloog waa ji mu jox la opportunité kaay wax ma li nga yëg nga nga koy daw wala wa wax ma sa dëgg nga kay daw comme ko moytu boo ñëwoon fii woo ma dinaa ko wii ji déglu ko mu wax ma wax ko li ma koy wax lu dëggu loo xam ne dina nekk ci noppam junni at ak juróom-ñaar di raisonné ci noppam boo deful ndànk sax mun na ma te duma ko saaga te duma ko xas mais dinaa ko wax dëgg ne ko bàyyil doomu jàmbur yi ngay tëj sa doom Amadou mi ngi dem fu ko neex di ñëw gënuñu ndey gënuñu bàyyi bàyyil di tëjaate ci ay émotion bàyyil mais ba laaj ko ne ko mais lan moo tax François Mancabou sa procureur ne moom François Mancabou mbëkk na benn grille treize minutes ba léegi joxu leen ni vidéo bi mais ah, a des choses yu ñu war lan moo tax nga ne sa loxo bi danga ko teg ci kudd ci ci dossier yi kud nga teg ci sa kud mais lan moo tax mais y' a plein de choses yu ñu ko mën a wax lan moo tax saa yu leen ñëwee ne wàññi ngeen ceeb fekk maa leen dara wàññi ngeen nang mais dafa bëri lu ñu ko mën a wax mais lan moo tax ñu war a dem jàkkaarloo war a mun a jàkkaarloo kooku di ko daw. ma ne ko Pape loolu moo tax man intéressant woon pour ma wax parce que xam naa ne wóolu naa la xam naa ne combattant nga xam naa ne boo jaayoon sa ngor heure bi waxatuñ la ku gëm sa bopp nga ku gëm sa ngor la ku am dignité nga loolu moo tax waxuma ko Sénégalais parce que c'est pas bu fekkoon ni ñoom lañ la bëggoon sant boo ko defoon kon duñ la dugal ci kaso <laughs> mu ne ma maay booy tu es super intelligent quoi <laughs> wax ma lu mu ciy wax nag ne ma loolu moo tax après loolu moo indi live bi dama leen di wax lu indi live bi mu ne ma maay booy jël ma live ma ne ko non man pare wu ma woon live de mu ne ma non du booy jëlal live defal live dugal ma dugal defal live ne ma mbaa ñoom wax nañ la li ma ko wax li ma leen tontu. mais Pape Alé dama ne gis nga kàddu yu mujjee bàyyi Mermoz billaahi wallahi wa ba léegi moo fay raisonné kàddu yu fa Pape Alé bàyyi ba léegi moo fay raisonné dëgg yi fa Pape Alé yàbbi ku ko fa yàbbi faatu dëgg yi yàbbi biir Mermoz googu dëgg du doomu aadama bu nekk ko ñime de wallahi la azim toog nag nekk sa ginnaaw internet wala nangam naa ay no man lu mu dem neexuma lu mu nangam nangam sa waay am na ñoo xam gaa yi ngi tayle seen bakkan yi de Pape Alé Niang lañ ko waxoon Mermoz bu ko defoon heure bi newul ci kaso yi de duñ ko duñ ko jàpp ko jibbi di ko jàpp ko tëj ko tijji de lam fa wax man gëm naa ni dëgg yooyu gëjoon na am na Mermoz te boobu la fa gëj am donc Pape Alé état félicité waxu fa benn yoon soxlaam te bu mu fay jóge gars yi dañoo mer fukki dërëm joxuñu ko ko fukki dërëm joxuñu ko ko ndax gouvernement bañ ko buñ ko joxoon fukki dërëm dinañ génn ne ko jox nañ ko fukki dërëm fukki dërëm papa la jëlewu ko fa otoom la ñëw dugg essence am gaare ñëw dugg wax leen juróom ñetti dëggam wala ñetti dëggam duggaat otoom ñibbi loolu moo tax coow jibul bal tàkkut ma ne ko loolu moo tax c'était pas intéressant parce que man wóolu naa la te boobu musuñu wax man ak yow musuñu séq wax mais dañu dañu ko yëg parce que xeex bi de buñ ko bokkee dañuy yëg dañuy yëgante dañuy yëgante mais mënuñu def ku génn rek kenn ki jéem ko yàqal wala fenal ko wala sànni la discrédit toog fa nga toog di yàq di loolu du yëfu gor du yëfu gor waxuma góor waxuma jigéen du yëfu gor maintenant Pape Alé taxaw fa taxaw bu rafet génn ma ne ko loolu moo tax waxuma ko mais loolu moo indi live bi loolu moo tax Pape nañ def live ma ne ko occ bismillah ma taal live c'était pour lui c'était pour lui Pape na ma Mollah dinaa la seet si billaay wallaay Mollah maa ngi waajal dinaa ñëw Canada seet si la ma tontu Pape na ko pap yow munoo bouger de mu ne ma non ma ne ko non munoo bouger kon yow yëgoo gaa yi la teg mu ne ma non dinaa dem ci Mamadou Seck ñu toog jàkkaarloo mu wax ma moom lii mu ma teg nii parce que jour boobu lañ ko bàyyi sous contrôle judiciaire bii ñu ma teg ak liberté provisoire bi lan ak lan lañ may interdire ma ne ko man maa lay wax loo xam ne demagoo sax gisanteeg Mamadou Seck dama ne yow doo génn Sénégal te doo wax ñaar yooyu lañ lay interdire doo génn Sénégal te ñu laa tëj fii te tëj bu ñu la tëj moo gën a garaaw kaso dañ la fa tëj ngay wax foofu ñuy dégg mais fii dañ laa ubbi tëj la ci mbedd mi doo génn. te doo yëy te doo yàbbi mu ne ma non loolu moom moo laa <laughs> bu ma demee ba mu di sekk dina leer mais dina seet si moom dinaa je te le dinaa la seet si moo laa dinaa ñëw ba Canada seet si la ma ne ko du léegi avant ñoo live ma ne ko du léegi dama ne ñoom jot naa ci ñoom ñu ne yow Pape Alé dañ laa interdire xam nga lan moo yeexal sa génn mu ne ma waaw te Pape Alé ne woon ci kaso ma nekk ci mbedd mi de ñu ñëw ma ne ko xam nga grand lan moo yeexal sa génn ma ne ma waaw ma ko lañ la sant nga defut dañ ne yow ñoom mun nañ la génne à une condition que yow nga disparaître disparaître waxuñu waxuñu nga kii de nga disparaître ci réseaux sociaux yi nga disparaître nga seey nga seey nga mel ni ko dee duñ la déggti doo dugg ci réseaux sociaux doo bind doo wax doo yëy doo yàbbi nga disparaître loolu kese moo tax ñu génne la buñ la bëggee génne loolu mooy yéexal sa génne loolu lañ la proposé mu ne ma mais boy mais yow xam nga ni man loolu duma ko nangu xam nga ni yooyu man moo laa yow xam nga ni man loolu ne ko si loolu laa xam mais man xam naa ni ñoom nee nañ ma yow sa yeexu génn lii kese la parce que ñoom laa nekk di saaga di leen attaque ñoom ñoo may xamal ni ma kii moo fa bàyyi boppam ñoom ñoo ñëwaat ci man ci bu ma leen di saagaaka xëpp di kii neexu leen ñooy ñëwaat ñu yónni seeni éléments yu ndaw yooyu ñu ñëw na ma hé seen waa ji moo laa dag ñoo yab rek mais kii moo fi bàyyi boppam ma ne lan moo tax ñu ne ma noo nee nañ ko mun nañ ko génne mais mu disparaître nan ngay jëlee un journaliste ne ko disparaître al un journaliste nga ne ko bul wax bul génn ci réseaux sociaux bul yëy bul yàbbi demal melal ni ko dee melal ni kuñ suul Pape Alé ne loolu du ma ko nangu moo laa yow xam nga ni man loolu du ma ko nangu ma ko non xam naa loolu ma ne ko doo génn doo yëy doo yàbbi comme ñu def Yérim sekk déggoo ko fenn fenn gis nga nu muy seeyee loolu la loolu lañ la bëgg a def parce que yow rek yaa leen déranger Sénégal amul benn doomu aadama bu am dossier yi nga am Sénégal mu neex mu naqari ñu bëgg ko ñu bañ ko ñaar ñii ñooy ñu leen gën ñooy les pires ennemis à part Ousmane Sonko les pires ennemis de l'État c'est Pape Alé Niang et Mollah Morgun mu neex mu naqari yàlla moo ko def te neexul sax nag dafa neexul parce que dem di dund ci dund boo xam ne dund danger ñu ñuy tëj di ñii di saaga ñii di ñoo dama ne les pires ennemis de l'État de l'État c'est Ousmane Sonko Pape Alé Niang et eh, moor gën amul beneen ñii ñoo leen gën a sonnal ñoo leen teree nelaw ñoo leen tere lekk ñoo leen tere naan ñooy jaxase seen famille ñoom ñoo leen tere dund lu ñu bëgg dund ñoo leen teree li ñu bëgg a def duñ ko def c'est les pires ennemis donc il faut ñetti ennemis yooyu yëpp ñu téye leen tënk leen tegee leen nële Ousmane Sonko lan la am mais liberté conditionnelle la am dañ jël passeport am téye ko demul dikkul kan moo ci des ça restait Pape Alé Niang avant Pape Alé Niang sax c'était moi ils ont fait tout leur possible pour m'arracher ici ce que le gouvernement canadien a rejeté catégoriquement ils en ont fait des dossiers sur des dossiers y en a pas un Macky Sall kii nga xam ne mooy ministre de la justice daf na dossier bien ficelé décrire ma comme un terroriste yónnee ko fii jox ko ambassade ambassade ba jël ko indi ko ci état bi ñu sànni benn ci dossier deuxième dossier boo xam ni jigéen ji Aïssata Tall Sall moo defar dossier moom tamit bien ficelé ak des feuilles pleines jugé comme di daggate si samay live yenn affaire yi génn leen nangam lépp mu daggate ko monté ñu monté dossier bien ficelé ak des professionnels si si ministère am ministère des affaires étrangères ay booy yu ndaw toog jàpp sama live yi di këppati di tagg di teg di këppati di tagg di teg fu ma naan génn leen booy leen faaya bën mëra xool ñu bind comme benn terroriste bu bëgg a taal dëkk ba ñu dajale ko joxaat ko kii bi kii nga xam ne mooy Viviane Bampasi mu yóbbaat ko ci immigration ñu jëlaat muy deuxième dossier ñu ne ko vurux tegee na la Viviane Bampasi def dossier boppam moom dossier boppam spécial joxewaat ñu tegaat ko ne am naa trois ñu ñuñ ñuñ may wax terroriste gouvernement canadien bi jël ko teg ci tànkam et je suis au courant de tout trois dossiers soi-disant criminel de criminalité de criminel kuy bugg a taal kuy rey kuy menacer waate de mort lépp lañ ci def ñu tegee ko nële ñu ne nag kon booy bi moom <laughs> rëcc nañu léegi ci lan lañ ko mën a téye mystiquement ñu jóg ci mystiquement ci ñi ngi ci wax naa leen ko ci mystique moom mystique nguur gi yëpp ñi may mystique dañoo jël sax ay sëriñ yóbbu leen ci ay hôtel ñi may mystique booy hôtel xaw ma omo onomo xaw ma onomo xaw ma omo omo xaw ma am na tur boobu waa hôtel boobu nañ dem dem na laaj hôtel boobu am na xaw ma Grand lañ nekk xaw ma HLM Grand Yoff omo moo ono moo xaw ma xaw ma seen hôtel yooyu parce que man xaw ma hôtel mais yóbbu nañ fa ay sëriñ foofu yu fees dal ñëwee mystique parce que le côté administratif a échoué le côté de me museler administrativement a échoué omono oh, merci hôtel omono o oh, onomo onomo ok hôtel onomo hôtel Onomo yóbbu nañ fa ay sëriñ xanaa peut-être ñu ngi doog a génn spécialement ci man pour man ay ay ay ay gang la def ay gangu sëriñ la ñuy jël gang gang na noppi na noppi daaneel boo leen ko mënee tëral boo leen ko mënee éliminer ci xeex boobu lañ nekk. route de l'aéroport Yoff merci beaucoup ay sëriñ yóbbu nañ leen fa pour ñu sëriñ tuma waxoon naa leen fi sëriñu ma ci fay jëm na ma fi sëriñ jël ay ay ay sëriñ yóbbu leen euh, hôtel. la Saint-Louis dem na Louga ci benn village di ma sëriñtu Basirou Gueye dem na mbuur di ma sëriñtu dem na Sindia di ma sëriñtu et cetera et cetera ñoom ñëpp dañ may sëriñtu Marème Faye Sall ñoom ñëpp dañ may sëriñtu parce que bu fekkoon ni tey jii nee naa la ñetti ennemis yi buñ leen mënoon éliminer rek ñam dañ naan gañe nañ ko Pape Alé Niang éliminé Ousmane Sonko éliminé Mollah Morgun éliminé dañ naan jeex na on naa gagné laa bataille c'est fini léegi pëpp bi leen di takk leen téye leen contrôler leen maintenant may wax ak Pape Alé loolu yëpp ci discours Pape man ak Pape Alé ñaare jour bu mu génnee ma ne ko grand yow moom fu mu ne nii mënoo goo ma seet si quoi te ne ko grand gars yi yow nee nañ yaa tée sa bopp ci kaso bi yaa téye woon sa bopp ci kaso bi. mun ne ma loolu laa xam moo tax ma déclenché sama grève de faim sama grève de la faim parce que ñoom dañoo ñëw di ma wax ni ñu bàyyi la nga dem noppi man mais moo laa ne yow yow rappeur nga ma ne ko waaw mun ne ma loo oddoo làmmiñ ma ne ko waaw mu ne ma boo noppee rafle mu ne ma rappeur ak journalist ñoo bokk benn métier dama woddoo làmmiñ làmmiñ ci làmmiñ laay liggéey ci sama plume laay liggéey ci sama wax laay liggéey ci sama kàddu laay liggéey sama état d'esprit laay liggéey mais loolu boo ko tëjee tëj nga lépp boo tëjee sama xel tëj nga lépp nit lu muy nekk nekk nit bu xel ma dofee bu bu perte raison bi nekkatul nit kon man bu fekkee ni sama cerveau boobu lañ bëgg a tëj moom mooy perte rey nañ ma di ma ne ko waaw kay mu ne ma loolu moo tax mu ne ma loolu moo tax man xam naa ni parce que loolu lañ ma buggoon tënk pour ma bañ ma déclenché grève de la faim ma ne ko grève de la faim boobu noonu gars yi wax nañ ma ci mu ne ma ma ne ko waaw di waxtaan de man ak Pape Alé ma ne ko grève de la faim bi nee nañ ñoom nee nañ dara jotu la mu ne ma Mollah seetlul grève de la faim bi ñaata jour la ma ne ko def na plus de dix jours mu ne ma waaw ma ne ko chaque jour que Dieu fait ñu bind rapport jox Jean Bocandé Jean Bocandé yóbbul ko autorité yi moo tax nga déclenché benn grève de la faim plus de dix jours laaluñu la waxuñu dara ba gars naan kii léeg mu dee kii léeg mu dee parce que dañuy bind rapport ne non waa ji grève de la faim bi dara ay lekk mi ngi lekk mi ngi lekk kii so sonn nu mais tuuti tuuti quoi non kii nangam nangam. rapport chaque jour rapport génnee ci mum euh, euh, mu tuddati ci Sébikotane prison bu Sébikotane régisseuse bi nga régisseur bi jël ko gel bi jël ko. transmettre Jean Bocandé Jean Bocandé bu ci autorité yi Pape Alé dama bay yëg loolu ne léegi nag damay en durcir sama grève de la faim léegi dama koy durcir durcir bu tar ba mu ko durciree bu tar ci la Jean Bocandé ñëw ci lañ woo nag Jean Bocandé ne ko nii ah ça commence à devenir sérieux parce que Jean Bocandé foofu rek la toogoon ñu koy yónnee rapport muy liir di jox autorité yi na ah day sóob rek dinaa leen joxaat beneen exemple sax par rapport à ça Abdou Karim Gueye da ngeen taxoon fii ne daa feebar Abdou léegi mu dee Abdou nangam nangam nangam am benn booy bu nekk lu dëgg di ko di ko def gaa yëpp di ci wax ma rapproché le système carcéral boobu noonu dugg ak samay samay samay système ak samay satellite dugg laaj leen mais Karim dafa feebar ah <laughs> xam nga lan la gaa yi wax ñoom ñoom autorité ñu ne dara jotu ko gaa yi ñoo nekk ci biti mais dañoo yaakaar ne ñoom ci biti bu ñu yuuxoo feebar boobu noonu ñoom day tax ñun ñu bàyyi leen ñun ñoo leen gën a jege ñii. loolu lañ ma wax de ñu ne ñoom ñoo gën a jege ñoom Abdou Karim Gueye que yéen ñii nga xam ne nit day ñëw rek xool Abdou Karim Gueye ne daf feebar rek génn loolu moo tax bàyyiwuñ ko benn yoon. parce que ñoom nee nañ ñoom ñoo ko téye ñoom ñoo ko téye ñoom ñoo ko téye kon ñoom ñoo koy contrôler rapport bi daf ne Abdou Karim Gueye dara jotu ko moo tax booy bi bu muy bi gérée la booy gérée bi bu mu yuuxu fii yëpp Abdou Karim daa feebar Abdou Karim léegi mu dee mi ngi naan médicament am defuñu dara bougé wuñ parce que ñoom ñoo ko téye ñoom nee nañ ku ñu téye dara jotu ko waaw xam laaj lee ma lan lañ ma wax moo laa kii dara jotu ko c'est vrai xaw na am perte poids mais parce que Abdou Karim day woor les lundi et les jeudi mais dara jotu ko bu ñëwee di leen laaj mais Abdou Karim lan la dafa feebar ñu ne ma dara jotu ko day woor leen lundi élegie di dafa xaw a perte poids tuuti xam nga rek booy woor leen leen di élegie di ma ne ko ah ok ñu commencé di wax a gars yi loolu moo tax après déggatu leen ndax Abdou Karim dafa feebar am na jamono joo xam ne ci ginnaaw boo leen ko arriéré un an un mois deux mois ci ginnaaw tout le monde parlait Abdou Karim daa feebar Abdou c'est vrai Abdou Karim wérul mais wax jooju lan moo tax mu arrêté ñoom gouvernement ñoo dox benn système à ce que mu yeggaat ci booy boobu ñu xamal ko ne ndox Abdou Karim dara jotu ko arrête sa li ngay wax munoo wax a wax sénégalais yi ba poussé ñu à que ñu bàyyi kii ñun ñoo ko yor ñun yow boo fi ñëwee jeudi nga fi wala benn yoon nga fi ñëw gënoo ñoo xam ni kii ñun ñun ñun ñi ko yor mënoo ñoo gën a xam feebar na am feebarul seen yooyu ay pression def da ngeen koy arrêté nangam nangam moo tax déggatoo fenn ñuy wax ay Abdou Karim c'est vrai te Abdou Karim wéru dañ ko opeere am lu ñu dindi ci butitam muy naani garab kon kooku wérul mais ñoom ñi ngi koy jéem a ñoom ñoom di koy jéem a dëfal Ousmane Sarr di un jàmbaar sax Ousmane Sarr un vrai jàmbaar combattant mais gi déggatoo Ousmane Sarr di ko wax déggatoo ñeneen ñi kenn di ko wax ñoom ñoo ko liggéey nee naa leen man parce que lépp lu mu bëgg a wax damay dem laaj ci renseignement ci ñoom yàlla may na ma ay possibilité ak ay filiale ak ay yoon yoo xam ne mun naa dem ci ñoom am nañ cër boobu ci man di ma déglu tamit malgré duñ def lu may wax mais lu ma soxla information ci état bi mun naa ko am lu ma soxla information ci état bi mun naa ko am parce que am na fu may jaar direct jot leen direct ñu wax ma direct li am des fois ñu dugal ci fen des fois ñu jëm ma lëndëmal fois ñu jëm ci yokk tuuti fen mais man xam naa je fais je dis je sais discerner le vrai de l'ivraie le bien du mal yàlla may na ma réflexion boobu noonu du ma dof du ma ngaaka tamit lu dul dëgg dama koy tegee ne luy dëgg ma ma jël lu may werante ma tegagum ba am lu ma wóor man noonu laay liggéeyee noonu laay traité information te tant que maa ngi koy def yàlla mun na ma muccal ci jaxase wala ci wax euh, lu dul dëgg ci dina mu musal ci vaar comme nu ko yàlla defee ba suñ jonn yàllay tey awma ko waaw le vrai euh, du vraisemblable donc loolu lii yëpp man ak Pape ñuy waxtaan ma ne ko grand loolu moo nar a doon problème bi war a tax gars yi jàppaat na Pape Alé ne bu dee loolu la dinañ ma jàppaat moo ma wax de mu ne ma moolaa ma ne ko waaw mu ne bu dee loolu la dinañ ma jàppaat ndax man duma noppi nañ def sax live ok ñu def live def lu ñuy def et tout ça live bi taxul ñu jàpp Pape Alé Niang déedéet dinaa leen wax lépp lu tax ñu jàpp Pape Alé Niang tey live Mollah Morgun bi ñuy wax naan non déedéet Pape Alé Niang dañ ko teree wax loolu mooy premier bi wax ñaata lañ fi jox liberté provisoire ñu nekk sous contrôle judiciaire ñi ngi wax te kenn jàppaatu leen Ousmane Sonko mais il est sous contrôle judiciaire chaque jour mu def conférence de presse wax mi ngi wax ak askan wi lan moo tax jàppuñu ko téye leen foofu seen baaraam un wax leen kenn koo xam ne mi ngi sous contrôle judiciaire te ba léegi mi ngi kenn jàpp ko un téye kër gi il est sous contrôle judiciaire liberté provisoire sous contrôle judiciaire kilifa sama doomu nday mi ngi suba ngoon ci média yi di wax kenn jàpp ko kenn jàpp ko Simon sama xarit sama genn wàll mi ngi ci mbedd mi di wax ci média bi di wax buñ ko bàyyee ba léegi sous contrôle judiciaire liberté provisoire di wax mais kenn jàpp ko kenn tëjaatu ko bu dee contrôle judiciaire la ñu mi ngi koy viole bu dee ki nga xam ni moom mooy Ibou Ndour rakk Youssou Ndour mais il est sous contrôle judiciaire te voyagé na fi mi ngi voyagé na fi mais kenn jàpp ko bu mu ñëwee kenn jàpp ko kenn tëju ko woo nañ ko mu ñëw ñu bàyyi ko mu dem donc ñaata ñoo fi am sous contrôle judiciaire te kenn jàpp leen mais lan moo tax kon Pape Alé Niang am sous contrôle judiciaire rek wax ñu jàpp ko ne c'est parce que dafa violé teggu leen de violé wul euh, sous contrôle judiciaire bi de déedéet dañ ko buggoon noppi loo noppiwul loolu lañ ko tëjaatee dañ ko buggoon noppiloo noppiwul Guy Marius Sagna am na fi sous contrôle judiciaire di wax kenn tëju ko c'est la première fois dans l'histoire ab doomu aadama nekk su contrôle judiciaire wax ñu tëj ko Sénégal ak bëri ñu nekk su contrôle judiciaire di wër di wax ci plateau yi te kenn tëju leen kenn tëju leen Pape Alé Niang moom mooy exception à la règle bi parce que ñoom accords yi dafa am ay accords yu waroon tax ñu bàyyi ko mais accords yooyu Pape Alé signé wul ak ñoom accords yooyu déedéet dañ ne accords yi kaay kaay ñu bàyyi la nga seey Pape Alé na maa bañ xaaral ma xiifal di xiifal. ñu naan ah léegi mu dee de ñu ah na day sóob ah, rapport yi naan day sóob Pape Alé dégg ni gars yi ñu ngi joxe rapport yi euh, Ndiaga ah Ndiaga Ndour ok Ndiaga est sous contrôle judiciaire mais voyagé na fi dem na fi biir si ñëw mais kenn tëju ko mi ngi wax lu soxlaam mi ngi def ay soxlaam Ndiaga Ndour <laughs> alors donc c'est la première fois dans l'histoire ñu jàpp kenn kuy def su kuñ kuñ teg sous contrôle judiciaire mu wax rek ñu tëj ko léegi dafa amoon ay accord ñu ko doon jéem a tegal mu bañ accord yi mu ne non du ma du ma négocier sama liberté du ma négocier sama sama autonomie du ma négocier sama jàmm du ma négocier sama rôle journalisme du ma ko négocier ñu delloowaat ko ci kaso bi mu ne léegi xaaral ma grève de faim muy grève gaay yi bi ni rapport non dara dalu ko ma muy lekk na ñetti dànq ñetti dànq naan na ndox ñu yónni Jean Bocandé téye sànni gars yi gars yi yëg ah tey lekk na lan lañ ko indil ceeb mais lekk na ci ñetti dànk de yëndul nañ ko buñ koy yëndu mi lekk na ñetti dànk naan na tuuti ndox ñu ne ah ko ah, kon kon kooku deewagul mu commencé ko euh, vendredi tak samedi ñu indiwaat ñu yëndu garde yi ñëw yëndu ah pap ma ah, génnu ma génnu ma du ma génn ñu yëndu ah <laughs> baa ngi nii de soxna si indi na ceeb bi de non non non baax ñu ñëw yëndu ah tey dur na ñaari dànk <laughs> naan na ndox gaa yi jox rapport ah kon kii naragul dee de ñaata loolu demal nañ dem ci dem nañ ceeg moom une semaine une semaine une semaine ñu ne ah bu doon bu doon day grève de faim vraiment dee na bu yàgg comme sénégalais ñu koy defee oh, dee euh, non pas de faim bi ñoom gouvernement bi ñoom ñu ngi jot rapport comme quoi ko waa ji pareegul pour dee parce que mi ngi am mi ngi lekk ñaari dank wala mi ngi lekk ñetti dank mi ngi naan même bu dee dafa fer perte poids sax deewagut tant que newul ci dund dee duñ ko bàyyi Pape Alé dem ba déggu loolu. léegi nag ne génnatul lekkatul naanatul foofu la vrai grève de faim bi commencé loolu ñaari fan la ko def ñaar ñaar ñaar ñetteel bi lañ ko génnee moo tax ma ne Pape Alé ci live bi yaa libéré sa bopp parce que loolu wax nañ ko ci biir waxtaan bi man ak moom ma ne ko yaa libéré sa bopp def nga plus de douze jours yoo xam ne grève de faim yoo xam ni deux jours yi nga mujjee def ba nga dégg yi nga doon def di lekk tuuti di naan di lekk tuuti di naan boobu boo ko doon def cinquante duñ la bàyyi mais deux jours yi nga génnatul lekkatoo naanatoo kese ñu xam ne léegi kii mu deese kon ñu ci lañ la génn donc accords yi trouvé wuñ ko le fekk mu mu deux jours yooyu noonu mu ñu naan léegi mu dee ci lañ ko doo ko génne ci la Jean Bocandé doo ko déplacé wu si les deux derniers jours ci la Jean Bocandé bu administration pénitentiaire doo ko déplacé gis Pape Alé Niang nii naa ko noo arrêté na ndàngam ndàngam donc dix jours yëpp yu mu doon grève de faim dañoo jàppoon mi ngi lekk mi ngi naan kon du dee Jean Bocandé déplacé wul bu mu toogee ba dégg information bi moom dégg téye boppam di grève de faim vrai lekkatul naanatul ci lañ doog daw ñaari fan la def ñu génne ko léegi comme génne nañ ko léegi Mamadou Seck dóor ko sous contrôle judiciaire liberté provisoire loolu mooy bul wax bul yëy bul yàbbi léegi ñun accord boobu ñu ko doon def comme accord de principe boobu comme accepté woo ko sax ñun léegi dañ lay jaay doole. léegi dañ lay génne malgré sa xiif ak sa mar xiif moo tax ñu génne la mais dañ lay teg affaire boobu ñun la buggoon teg ngay bañ dañ la koy teg donc da ngay génn te doo wax da ngay disparaître par la force foofu nag force moo ñëw par la force doole mbaam pap dangay ngay disparaître loo ci bañ a bañ ñu ko ci mais pap xamoon na loolu. kenn gënul jege Pape dossier am lu mu ci xam doomu aadama xamu ko ci kenn mënul toog fu mu toog lekk ba suur naan ba màndi naan sab café toog di di ko di imaginer yooyu yabaate dafa am ci Sénégal dafa bëri yabaate dafa bëri ñu jàpp ne dañoo am xam-xam jàpp ne ñoo ñoo la le monopole de la vérité de la connaissance toog fu ñu toog wéy stratégie bu mu doxalee du noonu danga gën a xam Pape Alé Niang ci lu mu nekk da nga gën a xam Pape Alé Niang ci li muy liggéey nga toog fu nga toog lekk sab ceeb ba sa biir na kang naan sab ndox toog jàkkaarloog sa ordinateur di imaginer Pape Alé lu muy dund dundoo xaaj sa baay dund ko sa yaay dund ko boole au lieu nga aidé ko sax nga koy sosal naan ay noo stratégie bu mu def baaxul non bu ma sañu man beneen sama stratégie bu bu gouvernement bi tënkoon ba téye la di nga xam yow amoo stratégie dangaa toog fu nooy toog fu sedd di lekk ba suur naan ba mandi mandi xaw ma looloo dal nga toog ay stratégie bi dañ ne dañ ne picc lu muy wax ci kaw garab ak lu muy wax ci loxo xale bokkul olof moo wax loolu nee na picc lu muy wax ci kaw garab lu muy woy ci kaw garab ak lu muy yuuxu ci loxoy xale bokkut bu picc ba nekkee ci kaw garab ga day woy bu ko xale bi ne tànget jàpp ba téye nii day yuuxu du woy day yuuxu day yuuxu loolu bokkut bu la gouvernement bi këfoon ba téye la ba nag di nga xam ba xam yow am nga stratégie wala amoo stratégie mais nekk leen ci net bii di bandi bandu rek ne nga ku ne di jéem a jaay xam-xam ak wuy wuy loo waaye bu doon man non sama stratégie man fu ma koy teg ci temps <laughs> dëmm jàppoon nga xam dëmm jàppoon nga xam toog di juge dafa yomb donc Pape Alé ci boppam xam ni loolu dañ ko def lu ñu naan épée Damoclès li ñu naan épée Damoclès la ñuy brandir ci kaw bopp bi génnal noppi mais lu tax muy Pape Alé di génn xam nga kañ lañ décidé woon pour Pape Alé ñaa duñ laal dossier bi génnal noppi ba deux mille vingt quatre la woon génnal noppi ba deux mille vingt quatre loolu Pape Alé ko nangu dee ci kasoo ko gën loolu kaso bu ko kaso gënul metti loolu génnal noppi ba deux mille vingt quatre bul dugg ci réseaux sociaux bul dugg ci mais kan moo am beneen stratégie boo ko mën a jox gouvernement bi di ay bandi téye ko fu ñu ko téye ne ko génnal noppi ba deux mille vingt quatre dafa am keneen ko am beneen stratégie bu bu bu ko mën a génne loolu noonu koo xam ne doo génn Sénégal doo romb frontière toogal fii fii ngay dee ba deux mille vingt quatre doo yëy doo yàbbi bul buñ la gis ci réseaux sociaux bul publier bul def live bul yëy bul yàbbi kii génn di xeexaat ak ñoom nga nga ne ko non am nga beneen stratégie boo ko mën a jox ban la. ban la te ñuy wax loolu duñ génne stratégie de non stratégie boobu baaxul mais lu tax yow tegoo benn bu baax ba léegi teguñu bu baax c'est que Sénégal moo bëri ay fenkat ak naxaatekat gis nga lii boo nee lii baaxut da indi bu baax mais doone bii baaxul rek téye ko foofu bii baaxut bii baaxut attends mais indil bu baax yoroo dara boo yoroon indi bu baax moom dañ ko interdit dañ ko bëgg a interdit ba deux mille vingt quatre du du mu seey mu mu seey completement bu taxaw ci plateau du wax du def live du def publication du def dara maanaam ñu rey ko mentalement ba mu dee ba mu faatu rey ko psychologiquement ba mu faatu moom muy xeex ak stratégie am di reyantewaat ak ñoom pour pour pour ne leen du ma nangu loolu ngeen may bëgg a euh, imposer du ma nangu esclave bi ngeen may bëgg a mais kooku moo ko stratégie ok Pape Alé ci boppam pour si libérer pour wan ñooñu ko li ngeen may bëgg a teg duma ko nangu mu ne ma Mollah ubbil sa live ñu def live man ma ubbi live bi ñu def live mu wax fa wax yu rafet amul lenn lum fa wax dégluwaat naa live bi te ñëpp déglu ni te live bi effacé wul mi fii Pape Alé Niang lépp vraiment wax yu rafet a rafet la fa wax saagawu leen xasu leen toroxalu leen bo lu ma ko laaj mu daw mu ne ko waa Pape Pape ale sa vie carcérale la raconté son euh, euh, sa grève de la faim laaj bu ma ko résumé sa vie carcérale te chaque jour ñu tëj nit nit génn raconté sa vie carcérale tëjuñu ci tëjuguñ ci kenn tëjaguñ ci kenn amul kenn ku ra ku génnagum kaso raconter sa vie carcérale ci benn média ñu jàppaat ko amul donc loolu jàppewuñ ko woon jàppewuñ ko loolu ok mu remercier les journalistes ak le peuple sénégalais kenn musu fi remercier les journalistes et le peuple sénégalais ñu jàpp ko kon loolu jàppewuñ ko ko bu ñëwee ci secret de l'instruction mu ne non du ko laal duma ko jege ci biir sañu live bi kon ku naan la ay live Mollah Morgun la non dafa am lenn lu ndaw ci live Mollah Morgun loolu laa leen di expliquer lu lu ak effet yu mu def mais secret de l'instruction nangu cee yëy nangu cee yàbbi leneen lu mu wax ci mbir yi moom mooy bu ne Abdou Karim Gueye imaam yi ak Pape Omar Diagne ay imaam ñoo dem jël vidéo boobu dem yóbbul ko Marème Faye Sall Marème Faye Sall moo tëjlu abdu Karim Gueye ak Cheikh Omar Diagne foofu la problème ba nekk nag ci live ba foofu Pape Alé waxul daara ci justice waxul daara ci instrumentalisation waxul daara ci dossier foofu la affaire ba nekk foofu la góom ba nag déglu leen de ba mu waxee ne Marème fay sàll moo tëj Abdou Karim Gueye ak ki nga xam ne mooy Cheikh Omar Diagne ay ay soi-disant imam corrompu ñoo ko indil vidéo boobu mu merca tëj lu leen mais moom dina reyante ne nag ne nguur wala ab njiit day am jigéen ju baax njiit day am jigéen ju baax njiit bu amee ci ginnaawam jigéen ju bon rek lépp yàqu parce que loolu derrière chaque grand homme y une grand dame loolu tubaab bee ko wax derrière chaque grand tom y une grande dame donc lu Pape Alé wax noonu loolu moom la l'adage wax donc def ne ab kilifa day am jigéen ju baax ci ginnaawam mais loolu <laughs> hii mais loolu dafa mer loo Marème Faye Sall Marème Faye Sall andi feere lañ ko ko yónnee seetaanu ko de dañ ko ko yónnee dañ ko dagg jox ko ko ne ko Pape ale yow la gis nga ñoom fenkat yooyu ñooy wër di dem toujours Mermoz nu oustaz yooyu demee Mermoz ba jox ko Marème Faye dañuy dem ba foofu jox ko mu jox leen xaalis ñu dem noonu la ñeneen jogaat jël loolu dagg ko loolu lañ dagg de yóbbu ñu leneen de yóbbu ñu kenn ci Marème Faye lu ñu ko yóbbaat ne ko xoolal Pape de nee na yow doo nit ku baax yow doo jigéen ju baax lépp yaa ko indi yaa yaay tëjaatee du ubbi waate loolu moo merloo Marème Faye Sall torop foofu lañ décidé Mermoz ne dañ koy dugalaat ci kaso bi à travers Marème Faye Sall foofu lañ décidé ne dañ koy dugalaat ci kaso bi te moment boobu le lendemain lañ doon dem jëli ji ko le lendemain lañ doon dem jëli ji ko mais y a un problème ñu ne leen. xaar leen ba Macky Sall dem aux États-Unis ba ñëwaat loolu c'était décidé de Pape Alé jàppam bii détail par détail daa di expliquer ñu ne leen xaar leen ba Macky Sall dem aux États-Unis ñëwaat parce que bu demee bàyyi benn prisonnier politique bàyyi benn journaliste ci kaso bi bugg a wax démocratie aux États-Unis avec président africain yëpp ak ñu fa daje bugg faa wax ay waxu démocratie parce que ils vont parler de démocratie de liberté d'expression de liberté de nangam-nangam mu ñëw fa journaliste yi danañ ko ne mais attends yow y'a un journaliste sénégalais qui est en prison en ce moment-là au moment où tu la là en train de parler de démocratie de liberté mais yow da ngaa tëj sa journaliste mais Pape Alé bu fekkoon Macky Sall amul voyage États-Unis jour le lañ koy dem jëli. billaahi wallaahi wa taala mais dañ ko reporté en attendant Macky Sall dem wuyu ji États-Unis def ay wax ci démocratie wax ci liberté wax ci euh, liberté de la presse ak et cetera et cetera lépp mu wax fa wax ci troisième mandat am ci la expliqué troisième mandat bi naan ay man la neex maa xool lu ma neex waxul sax ci wax loolu wanewul démocratie et cetera et cetera interview boobu donc mënuñu woon li Marème fay Sall mer foofu rek ñu ne tërëj. jël Pape Alé Diallo dem yóbbu foofu lañ ko doon njëkk a jàppee ne ne ko dangaa violer le secret de l'instruction Marème Faye moo doon tëjlu waat Pape Alé Niang déggu leen de Marème Faye moo doon tëjlu waat Pape Alé Niang ci vidéo bu dagg noonu ci man dem jox ko ko mu mer ci lool nekk mer muy màttu donc mënuñu koon tëj moment boobu il fallait ñu reporter ko en attendant Macky Sall jóge États-Unis parce que mënul def États-Unis jàkkaarloog ay journalistes di wax tandis que moom am na benn journal journaliste seen morom journaliste parce que loolu délit la loolu dégât bu graaw fii kenn du tëj journaliste aux États-Unis journalistes yëpp sont libres au Canada tous les journalistes sont libres en France tous les journalistes sont libres en les journalistes sont libres donc loolu boo taxawee ay tubaab ay journaliste ni sa moromam di la poser question naan la yow danga jàpp suñu morom déggoo de da nga jàpp suñu moromu journaliste. parce que bu leen fàtte ni journalisme moom moo indiwoon Charlie Hebdo ah journalisme dafa garaaw de ñun ci ci pays yi pays développé yi journaliste kenn du ko laaw kenn du ko jege dafa am ay règles yu ñuy rédiger yoo xam ne da ko protéger da ko protéger trop. donc pour ñoom comme Charlie Hebdo journaliste journaliste ay journaliste ñoo attaqué saaga prophète am ay boo yu pipp seen kaw mais àdduna yëngu donc gis nga lépp journaliste ay dëkk yoo xam dañoo tàkk ndax ay journaliste Côte d'Ivoire rey nañ fa journaliste la musicien yëpp woy ko journaliste dafa dafa fii nii fii ci kaaw bi journaliste métier bu noble la kenn du ko laal kenn du ko jege donc Macky Sall amul fitu tëj fii journaliste dem ba Amérique di fa wax démocratie di fa wax liberté donc il fallait que mu leen may leen stand by ñu bàyyeegum ko surtout un journaliste d'investigation ñu bàyyeegum ko en attendant ma ñëw gars yi Macky dem def interview am tout ça bon gars yi gis ni libéré na benn euh, benn journaliste am et cetera et cetera euh, exactement Norbert Zongo euh, ñëpp dañ ko rey ñëpp way nañ ko c'est c'est un métier très protégé donc Macky Sall dem États-Unis def lu muy def def interview am def ay circam fen ay fenam def ay lu ko neex après dem Japon entre temps entre temps Pape Alé am lu mu publier dafa am lu astafurlah entre temps am lu publier lu génn garaaw xam nga ñoom déjà dañ doon bu ñëwee rek jóge Amérique dañuy dem jàppi ci Pape Alé Niang ci lan même bu dara génnul woon de dafa am lu fi dafa am ay ay événements yu suite yu doy waar yu yu am ci diggante bi déglu leen bu baax li ma leen wax mais Pape Alé boobu lañ ko naroon jàpp bu ñëw bu Macky Sall ñëwoon bu Macky Sall pare Amérique rek dañ doon dugalaat Pape Alé ne dafa violer secret d'instruction mais dafa am leneen lu ci teguwaat vum Pape Alé dafa génn rapport Covid bi génn rapport bi ñëpp jot ci nii xam nga rapport Covid bi bu mu yàgg na mais kenn amuloon fiicher rapport bi bi Pape Alé di génn tombé waral ay gaaf ak rapport Covid bi ñoo bokk vingt quatre heures la vingt quatre heures Pape Alé dafa génn def interview bi la lendemain la rapport bi na faraj partout ñëpp jot rapport bi tout le monde rapport bi tout le monde jot ko déggu leen de déglu leen bu baax li ma leen di wax nag lu am solo la ngeen xool suite logique benn par benn benn par benn parce que lépp mi ngi nii la rapport définitif Covid bi rapport définitif Covid bi génn tombek vingt quatre heures après la sortie de Pape Alé Niang ñu toog rapport Covid baa ngi nii ñu toog rapport Covid bi. lii nu ko gars yi di jotee nii page par page adduna bi yëpp di ci wax rapport bii de ak am na bu yàgg du tey la pare bokk na ci rapport yu ñu tekkut cent quatre-vingts pages Sénégal yëpp jot fichier boobu noonu c'est vingt-quatre heures après la sortie de pap Alé Niang la que Sénégal yëpp jot mais rapport bu ñu tegoon kudd la parce que ñoom ñoo ko séddoo. yéen a ngi dégg lu may wax ñu taxawaat mer ñoom jiñ ko Pape Alé na Pape Alé moo ko génne déggu leen de gouvernement bi jiñ ko Pape Alé ne Pape Alé moo ko génne boobu Macky Sall la nga Amérique de mi nga Amérique rapport bi génn Macky Sall Amérique sax la nekk bu muy wax naan képp ko ci taq dinañ te jàpp woote ci suuf ne kan moo nangam tàndaayam génn affaire yi kan moo nangam Macky Sall ci kaw daf ne média américain yi rapport boobu génn képp ku ci taq dinañ la jàpp ay nitam rekk ci taq Mansour Faye ca ne ay ay ay ay ministre mi rek ci taq papa kenn taq ci ñoom rek ci taq ñoom la ñoom c'est eux moom sax lekk na ci ci suuf loo fa woote moom Macky Sall depuis le saagale nday ne kan moo génn nday rapport bi moom saagakatu nday la nag naan ko tu sàngara la tux ko tu cigarette la tëdd ko tu caga nday la ku yàgg saaga nday la dafa bëgg saaga nday Macky eh, wax naa leen ko fi ga eh, eh, défaut Macky Sall yëpp wax naa leen ko après ngeen koy gis chaque jour ngeen di gis défaut Macky Sall yëpp day saaga nday day tux cigarette day naan sàngara day tëddee ay yeneen jigéen c'est ses défauts te jul du jullit jullit jullitewul musulmanteur la gëmul dara donc Macky Sall woo ci suuf saaga leen kan moo génne ñoom ñu jiiñ ko Pape Alé ñoom Pape Alé xam nga boo gisee Pape Alé dafa génne rek rapport bi génn ñu jëm jiiñ ko Pape Alé ne Pape Alé moo sànni rapport bi ñu ne kare jàpp toog di xaar Macky Sall jóge Amérique loolu yëpp mi ngi xew déglu leen de loolu yëpp mu ngi xew ci Macky Sall ba mu nekkee Amérique Macky Sall le 12 la dem États-Unis le 12 le 13 le 14 le 15 le 16 presque la fa jóge def na fa presque cinq jours cinq jours ci diggante bi bum bum bum bum bum gars yi xaar rek rapport bi génne tak gars yi de Macky woote saaga ndey kan moo génne ñu ne ko Pape ñoom ñoom ñu sosal Pape Alé na Pape ale mais lan moo gën a yëngal affaire yi te foofu lañ ko bëgg a jàpp mooy bu ñu waxee ne Bocar yàgg mooy chef de la police dafa rawale ay njabootam dafa rawale ay njabootam loolu ci ñaari condition lañ ko jàpp ñoom ay nit yu soxor dañuy defante dañoo jàpp ni moom ki nga xam ne mooy Pape dafa bëgg wax ni ñoom dañoo bëgg a daw te ñoom parewuñ pour taw dañoo pare pour écraser population bi rey leen daggate leen toogaat fi parewuñ pour daw ñoom dañoo jàpp ni ñoom ci ñoom laay wax de ci li ñu de lu ñu posé lu wax dañ ne ñoom dañ Pape Alé dafa bëgg a wax ni ñoom ñi ngi rawale seen njaboot parce que gis nañ population bi ne ah ñi ngi dawale seen njaboot ñi ngi dawale seen njaboot dañoo préparé pour daw te ñoom bëgguñu assumer nañu dañoo ragal dañuy nëbb ni ñoom dañoo ragal lañuy làq ni ñoom dañoo ragal te population bi loolu bu Pape waxee loolu ñoom ñi ngi commencé population baa ngi commencé jàpp di gën a yokk fit di am fit di xam ni ah kon yii ñi ngi nar a daw kon yii dañoo nar a daw kii ñii dañoo nar a daw ñu ne nag far Macky Sall jóg foofu dem Japon rek démb démb démb ah démb démb démb même pas vingt quatre heures presque bërki démb la Macky dem Japon démb lañ jàpp Pape Alé mu génn dem Japon rek ñu ne dem leen jëli ko ñu dem jëli ji ko donc rapport bi bokk na ci lu ñu tax ñu jëli ji ko le fait ñu ne ko ñu génn ko ne dafa feebar ba pare ne ko doo wax doo too wax da ngay disparaître à vie ba deux mille vingt le temps ñu nourrir suñu suñu li ñu suñu plan ak suñuy suñuy complot pour jëlaat nguur gi doo wax bokk na ci. parce que liberté provisoire sous euh, sous contrôle judiciaire bëri na ñu koy def ñu ngi wax donc affaire Bokar Yàgg bi c'est la goutte d'eau qui a fait la vase cette goutte d'eau qui a fait la vase affaire Bokar Yàgg bi la. donc ils se sont sentis vexés ne dañ leen attaqué seen honneur dañu bugg a gëmloo nit ñi nii dañuy daw te ñoom dawuñu dañu bugg Pape Alé doon bëgg a gëmloo nit ñi que ñoom dañuy rawale seen njaboot te rawale wuñ seen njaboot donc rapport bi ci la bokk Marème fay bu yëg boppam ci la bokk te loolu sax mooy mooy mooy nday mbilli gi Marème fay bu yëg boppam parce que Marème Faye dafa gis ni Pape Alé dafa yëkkati jabaru ñu fi jaar ñëpp sauf moom xam nga jigéen yenn état d'esprit yi ñu am Pape ale bu mu wax na ni moo Mollah est-ce que mus ngaa gis euh, jabaru président bu taxawee nii buy tëjaate ma ne ko déedéet est-ce que euh, jabaru Ablaye Wade jàpp na fi ay nit di dugg ci système di tëjaate ndax ay vidéo ma ne ko déedéet jabaru Ablaye Wade déedéet xaw ma ko de est-ce que jabaru Abdou Diouf ñun mu ñuy fàttaliku am na ku mu fi jàpp tëj yéen ci kaso bi ndax moom lañ vexé déedéet te pourtant le Pape Alé Niang wax am na. loolu Marème Faye buñ ko yónnee vidéo dagg ko won ko vidéo metti na ko lool moo tax moom mu moom moo doon tëj Marème Faye bokk na ci ñu tëj Pape Alé mu doon la troisième personne bu Marème fay tëj Karim Xurum Xaq ab mag kii ko tëj Marème fay la Cheikh Omar ki ko tëj Marème la léegi moom Marème Faye en tant dafa sentir ni dignité am lañ vexé honneur am lañ vexé dañoo gëmloo Pape Alé daf ne moom ko bon la kuy tëjaate la mu mu woon ko ni man maa kon ko affaire bi man la léegi man dama yow sax laay tëj nag pour wax jeex loolu moo loolu la kon Marème Faye moo doon tëjaate moo tëj Pape Alé mais dañ doon xaar Macky Sall dem far rapport ba génn ci diggante ba ñu jiiñaat ko Pape Alé far Pape Alé Niang def benn publication wax ñiy yori ñiy rawale seen njaboot comme ku mel ni Bokar Yàgg chef police muy beneen encore ñu jàpp ko indi léegi bëgg dellu di gëmloo sénégalais yi que no live moo laa moo laa live am àdduna yëpp dofuñu mi ngi fii dindiwuñ ko effacé wuñ ko ñëpp ko seetaan ku dem Pape Alé saagawu leen xasu waxu leen dara live bu Mollah amul dara lu ñu mën a toppee Sankhaleñ live bu Mollah ak Pape Alé Pape Alé amul dara lu ñu mën a toppee melentaan live bu Mollah Morgun Pape Alé amul dara lu ñu mun a toppee weñ weñ amul dara lu ñu mën a pompee yoo daraan amu ca waxtaan la bégee happy bëggee journaliste yi bëggee laaluñu fa dara violé wuñ benn secret d'instruction dara amu fa lii lañ ko jàppee dañ na ko dañ ko ne par force da noppi te journaliste moom boo ko noppi la dootul exister ti te wax naa leen benn affaire ils avaient proposé à Pape Alé Niang huit cent millions dama leen di expliquer li ñu li am Mermoz bu Pape Alé Niang ñëwee gaare gars yi ñëw nuyu nangam ñu yóbbu ko seen salon bu ngand boobu ngandam maami salon ñu togg waxtaan y avait fay Faye y sàll Macky ñuy reer ba suur table ba am ay seen xawma ay fruits seen fruits yooyu ak jus yi nangam nangam Pape Alé Niang ñëw toog lekku fa sax ndeysaan toog jàkkaarloo ak ñoom waxtaan wooyu Pape nanga mu naay lépp jaamu Pape di leen déglu ils ont proposé à Pape Alé Niang huit cent millions de francs CFA pour mu ubbi teleem boobu noonu euh, euh, xaw ma Dakar Actu xaw ma Dakar lan Dakar euh, sitam bi pour mu def ko genre télé internet wut ay journaliste te ñoo ko ñoom ñoo ko proposé loolu Macky Sall Marème fay Sall huit cent millions pour débuter pour commencer pour ubbi teleem boobu dakaar lan dakaar matin dakaar matin merci beaucoup dañoo proposé Pape Alé Niang huit cent millions pour en attendant mu dem Dakar matin mu dem jëndi ay matériel ñu jël Dakar matin def ko genre télé benn télé mu wut ay journaliste ñu defar ay table ay ordinateur ay caméra ay affaire mu def benn télé am sitam am sitam bien mu ñu ñu financé site bi financé télé bi en attendant huit cent millions mu rejeté ko huit cent millions mu rejeté ko calmement et respectueusement foofu ca ca Mermoz mu mun a noppi kon Pape Alé Niang ak leneen ak leneen Pape Alé yor na lépp lañu njëkk def moom mooy dañoo buggoon jël portable mu ne non bu mu Pape Alé dañoo bëggoon jël portable mu ne leen fii du palais kër ngeen ma woo ci kër laa ñëw nit munoo ko invité woo ko ci kër ba pare ne da jël portable am Pape Alé bañ ñoom ñoo ko woo ne leen no non munuma leen jox sama portable du ma leen jox sama portable moo tax portable boobu Pape Alé Niang ne dañ ko këf <laughs> këf te naa la expliquer lan moo tax ñu këf ko bi mu ñëwee luñ ko njëkkal kii mooy pour jël portable mu ne du jël portable du leen jox portable bi ci kër la ñëw ñëwul palais du ay affaire audience palais yooyu ci kër la donc affaire familiale la ku ku la woo wax la maa mu jox la mu ñëw toog ba mu toogee ñoom après dañoo sone ne Pape ale Niang dafa enregistré buñ koy jéem a corrompre ñoom dañoo enregistré ne Pape Alé daf leen doon jéem a dañoo dañoo soupçonné ne Pape Alé da doon doon jéem a enregistré yéen moo tax une semaine matu ko ñu dem jëli Pape Alé te Pape Alé Niang na leen bañ ko jëlee amuñu luñ koy teg téye nañ ko fa di ko jaabante suba ngoon Pape Alé Niang ma toppee amuñu ko ñuy wër luñ ko toppee ñuy wër luñ ko toppee ñuy wër luñ ko toppee moo tax lépp ay fen la secret défense lañ doon wax strictement confidentiel secret défense lan lan moo secret défense lan la génne non tia génne nga ay document euh, confidentiel estampillé secret défense mu ne leen lan la lan la ñu ne ko noo xamuñu de mais en tout cas lii daal la lii lii secret défense kii bi nga génn ci gendarmerie bi nga secret ñu tëj kaso parce que première fois bu ñu tëj Pape Alé Niang mooy la ñu jàpp ni moom bu mu fa ñëwee ñu proposé ko mu bañ audience boobu noonu la mu rejeté lépp loolu lañ ko tëjee ku la wax leneen day fen ku la wax leneen day fen déggu leen de dama ne première fois bu ñu tëj par Alé Niang kaso bi lu mu ko bu mu njëkkee ñem lépp luñ ko wax luñ ko toppee ci ay inculpation dara du ci dëgg ndax amuñu benn document buñ ko mën a jàppee téye nañ ko ba pare di wut luñ ko sosalee parce que liñ bu mu ñëwee foofu li ñu bëggoon accord yu ñu bëggoon am ak moom te mu bañ accord yu mu bëggoon am ak moom te mu bañ loolu lañ ko tëjee kaa ñi defal la lii huit cent millions Dakar matin ñu ubbi la ko télé jox la ay matériel nga wut ay journaliste nga am comme tout le monde ñu defal la lii lii lii proposition yëpp ci biir kër googu Pape Alé bañ ñoom Pape Alé génn ñu bugg comme téléphone bi lañ bëggoon jël mu bañ ñu proposé nañ ko sax pour mu fay téléphone bi mu bañ dañ ne dañuy jël téléphone bi pour mu togg ñoom mu bañ ñu ne ko fayal téléphone mu ne mënuma fay téléphone bi sama téléphone du munuma ko fay j'ai des j'ai des yoo xam ni yu intéressant yoo xam ni bëgguma mu raw ma munuma fay sama téléphone soit ma ma yéen a ma woo avec tout le respect que je vous dois ma wuy si leen parce que vous êtes un président un couple présidentiel mun naa leen wuy si mais di di jël sama téléphone wala fay sama téléphone moom munuma ko wala joxe sama téléphone munuma ko ñu ne ko waaw amul problème ñu nangoog moom noonu commencé di ko proposer ay huit cent millions ay ubbi télé après sa site boobu ñu nga ubbi benn site bu gën a nga def lii nga def laa ay seen fen yooyu Pape Alé Niang rejeté loolu léegi nag Pape Alé Niang bu mu génnee ñu ne waa ji daf leen enregistré eh, Pape Alé Niang ndax il que <laughs> soupçon lu tax joxewul téléphone lu tax ko Pape Alé Niang doon enregistré gars yi léegi nag loolu lañ topp moo tax bu ñu demee xoolal dañu fekk Pape Alé Niang gars yi dañ ko topp filature depuis bu ñu le lendemain dañ ne kii <laughs> yóbbu na suñuy ojo de enregistré nañu de filature ñu topp Pape Alé Niang teg teg teg teg topp ab dañoo bàyyi ba muy defar pënam xoolal dañoo ñëw wax na dëgg nii bu mu yore kool bi dañ ko këf këf comme ay agresseur vum ko kóol ba naaw kool ba lañ jëli coy yi yi nii lañ def comme man civil wër ko wër oto bi di kii foofu filature loolu lañ ko tëjee filature ñëw moo tax ma ne gis nga gaa yi lu ñuy dund ñoo ko xam na gars yi bàyyi toog ci internet bi rek di sosalaate ka fenalaate bugg ay vie wala ay gem te xamuñu dara ci lu ñuy wax xamuñu benn amuñu dara lu jege dossier Pape moo tax mu gars yi mel ni dëmm dañoo këf sama téléphone mi ngi taxaw nii ñuy defar ruu oto bi mi ngi taxaw nii nii sax la wane ginnaaw nii téléphone nii la def nii la def téléphone bi Pape Alé nii nii xam nga nu ma taxawee nii jàkkaarloog otoom mécanicien yi di changé pneu nii la def téléphone mi ngi ci ginnaaw nii mu ngi ko téye ñaari loxo élément bi bi nii lañ ko def gendarme yi buuf mu ni oh oh, oh. <laughs> ñu ne ko vous êtes sous arrestation vous êtes sous arrestation mais mais c'est comme ça que vous prenez mon mon téléphone c'est comme ça que vous me faites kaay na jël téléphone bi téye téléphone vous êtes sous arrestation moo tax ngay dégg le téléphone de Pape Alé Niang a kii le téléphone de Nangam yëpp téléphone lañ doon wax. boo leen seetloo bu ñu jàppee Pape Alé Niang yóbbu ko lépp téléphone la gars yi doon wax ay nit yi le téléphone de Pape Alé Niang a raisonné le téléphone de Pape Alé Niang dañoo xool waxam ah, Alé Niang dafa enregistré Macky Sall ak jabaram boobu ba xam Pape Alé Niang du ay affaire ñaari gendarme yi ñooñu xaw ma nit yi ñoo ñëw naan ko ay pare ñaari gendarme déedéet. enregistrement bu jàpp ni Pape Alé Niang dafa enregistré Macky sàll ak Marème fay ci bum koy jéem a corrompre loolu moo tax ñu këf téléphone ba pour pousse Pape Alé Niang mi tourné comme ay agresseur ñu ne ko non vous êtes en a d' arrestation mais noonu la ñuy jàppee nit da këf téléphone jàmbur ba pare téye ko ne vous êtes en état d' arrestation gars yi jàppale jël la yóbbu noonu noonu otom bi foofu noonu foofu lañ ko bàyyi ñu ko defaral pënam noonu lañ ko jàppee dugal yóbbu jël téléphone ba dugg ci biir téléphone bi <laughs> mais Pape Alé Niang il est fort fekk ñu fa audio fekk ñu fa dara ba léegi ñoom jàpp nañ ne Pape Alé Niang mi seeni audio fekk ñu fa téléphone fekk ñu fa tous ñu dugg ci téléphone ba kat kat su ñu xaj seen chien méchant yi seen chien errant yi mooy le téléphone de Pape Alé Niang a raisonné woo ko Pape yaa kii si yaa ka xam ñoom ñu ñuy fen rek téléphone bila la enregistrement bi la ci lañ ko jàppee tëj Maram Faye ak Macky Sall ñëw tëjoon léegi nag bu ñu fenee ñu ne am ñu ñu yónni ku mel ni Madambal Diagne ak ñeneen ñi ñu yónni ci média yi ñoom noonu la ñuy def nañ lay tëj ba pare sosal la après ñu naan ay secret défense estampillé ñu laaj leen ba sonn ban dossier la Pape Alé génn kenn amu ko ban dossier confidentiel la Pape Alé am kenn génn gisu ko kan moo fi yor benn dossier boo xam ne ci Pape Alé Niang nga ko jëlee ñëpp ne Sénégal yëpp kon ñëpp xam dans dans dans l' ensemble que Pape Alé Niang amul benn doomu aadama bu yor benn dossier confidentiel wala estampillé secret défense boo xam ne doomu aadama yor na ko kon lépp ay fen la donc audience boobu ak enregistrement yooyu ñu foog moo tëj Pape Alé Niang ñu yónni ma dembal ma naan way Pape Alé Niang xam ne ñu bëggoon ko. xam nga luñ fen fen bu defaruwul ñoom ñoom seen fen baaxul ñoom seen complot du sorti seen fen du rafet amuñu amuñu moyen quoi amuñu moyen dañuy demee pulsion ay impulsion yu grave la ñuy demee ñoom de Macky Sall moom xam nga haine la rage la day mer rek <coughs> dama jàpp ko euh, xam nga te dafa dëkk da am justice ab ah, boo jàppee nit da il faut nga am loo ko teg mais ñoom noonu la ñuy def ko dañuy lekk dañuy Macky na lekk ceeb nii sa xolo mu saf kaan rek jàppal ma moo laa jàppal ma laa jàppal ma laa yaya safara kaane ah jàppal ma Mollah ñoom noonu la ñuy def ay buur lañ quoi ay ay ci ay pulsion lañuy demee ay yëg-yëg ñoom noonu la ñuy def ceeb bu saf kaani sax xoolal Macky Sall mun na ci tëj benn ennemi dañoo cuune quoi amuñu maañ donc loolu donc réellement moo bàyyi foofu léegi nag ñu ne ñoom comme am dañuy fen te mu ay cuune lañ. mën nañ la jàpp ci ceeb bu bëri xorom Macky Sall mën na la tëj ci jabaram def ceeb bi xorom bi ëpp mu tëj la waaw ah, saf na xoroma jàppal ma papale oh, oh, oh, merde merde yaa yaa beaucoup de sel là mais ma xam ceeb bi dafa bëri dafa bëri xorom jàppal ma moo jàppal ma papale ñoom noonu lañuy def ñun nguur yu mel ne ay ay nit yu réew bon soxor rageux haineux vulgaire lañ am yoo xam dañuy fayantoo dañuy a waate gis ngeen ko ki nga xam ni moom mooy dañuy ñëwaat léegi ci dañuy def benn parenthèse rek gis ngeen Aliou Sow menacé nit dof jox naa la cinq millions ñun jox nañ leen 5 millions fonds des cultures urbaines dama ne boo fi waxee rek ma tëj la booy wax ma tëj la état ko laal ma tëj <laughs> gis ngeen lii xoolal un ministre moo ko bind affiché ministère au nom de son de mu menacé nit dof carrément adduna yëpp gis ko. waaw yow jox euh, fonds des cultures urbaines jox jox na leen cinq millions 5 millions yoo xam jotuñu ko jox na leen 5 millions boo nee prip boo état ma tëj la en tout cas de toute façon ku fi dañ lay tëj <laughs> ay dictateur ngeen am ay bandi ngeen am ay nit yoo xam ne ay kaani gi saf na dañ ciy tëjaate ay xorom si ëpp na dañ ciy tëjaate ay ceeb bi weseng na dañ ciy tëjaate ay ceeb bi dafa tooy dañ ciy tëjaate ñun ñooñu lañ yor ak bu salte bu salte jëli justice boo xam ne jëli bu caga ay mandikat dafa ne ay drogué ay caga bordel ay nitu baar ay nitu ay sulaar ay caga baar ñoom ñoo nekk ci justice ay Mamadou Seck ay Pape euh, euh, Amadou euh, Diouf ay ñoom Bassirou Gueye ay yaayu caga baar ay sulaar ay ay ay njaayaar ay silibaar ñooñ ñoo ci nekk donc ñooñu ñooñu dañuy toog rek xaar ñële bu dee ceeb bi dafa bëri xorom wala ceeb bi dafa tooy wala ceeb bi dafa beseng wala ceeb bi dafa bëri kaani ñooñu jël waa ji jox ko ñoom tamit doomu caga yi doomu solaar yi doomu cagabaar yi jël tëj eggali di di laal seeni caga noonu la ñuy dundee noonu la ñuy def ñëpp ñëpp noonu lañ leen def donc ñu yónni ma dambal jaañ ma dambal jaañ ñëw ñuy dóor pression ne woon naa leen Bocar yàgg moom moo doon def sale boulot moo jël jox ko Sangaré Sangaré Sangaré gis ngeen mooy l'homme de Tetavax Sangaré l'homme de Tetavax donc ñu yónni ma dambal ma dambal ñëw waaw Pape Alé dafa tooñ Moussa Fall sax dina ko porter plainte Moussa Moussa Fall tam jénne fee waaye je vais porter plainte Pape Alé dafa wax ni benn immeuble maa ko moom te moom ma immeuble bi yi ñoo tolloo man Moussa laa tudd borom immeuble bi la tudd ma sant Fall borom immeuble bi sant Fall kon nag ma jambal jaañ sànni dossier yi génn kayit kayitu kër waa ji vum mi ngi nii xool leen moomu ko du moom du moom du moom Moussa Fall taxaw dama koy porter plainte ma koy porter plainte man la général Moussa Fall. yaa ngi ne ko non bul ci taq kii. il faut ñu tëj ko parce que dafa dem meer Mermoz ñu proposé ko dara mu bañ te gars yi neen def enregistré foog ñu tëj ko loolu jar Moussa calme Moussa non Moussa waaw dinaa ko porte plainte dinaa ko porte plainte parce que man euh, euh, gis nga ma dambal ma dambal sax génne na ay dossier ci benn kër boo xam ne bu bu bu Pape Alé de Pape Alé ce que mus naa wax ni kër boobu di jar un milliard daf ne kër gii jar un milliard bu ñu tabax Mermoz am na général bu ko moom ñu féetale ko Moussa Fall Pape Alé mooy kumba amul ndey loolu rek la wax am na kër boo xam ne ñu ngi koy tabax fële buy jaar un milliard benn général ko moom ñoom ñi jël ko ma dambal jaañ ne Moussa Fall la wax bay génne dossier mi ngi nii day fen Moussa Fall kii bi kii Moussa Fall la tudd kii Moussa mais kii Moussa Fall boobu bokk la Moussa Fall bee Moussa Fall ah damay porté plainte damay porté plainte ñu tëj Pape Alé récupéré retiré naa sama plainte <laughs> dégg ngeen de dañuy foowee suñu dund ñu tëj Pape ale ba pare Moussa Fall génn non garaaw loolu rek laa ci bëggoon nañ ko tëj rek nañ ko tëj retiré naa sama plainte nii donc en fait Pape Alé Niang li ko tëj nii ba léegi ñoom la li nga xam ni comme nu ma leen ko waxee rapport boobu buñ sosal nañ ne moom la te du moom te du moom gisuñu fenn la ñu waxoon ay dossier confidentiel amul dañ koy sosal rek di ko fenal moom la ñu wax ne dafa génn def ay sorti junni aadam doomu aadama def nekk nañ sous contrôle judiciaire comme Ousmane Sonko te ba léegi mi ngi wax te tëj c'est la première fois ñu tëj ci doomu aadama kon moom la mooy kumba amul ndey Ousmane Sonko est sous contrôle judiciaire suba ngoon day def live di wax suba ak ngoon gu dégg bëccëg te kenn laalu ko kilifa est sous contrôle judiciaire kenn tëju ko caat euh, kii nu mu tuddu Simon est sous contrôle kenn nangam Ibu maam sa et cetera et cetera et cetera Guy Marius et duñ jeex moom rek moo fi nekk benn doomu aadama sous contrôle judiciaire ñu jàpp la. parce que famille boobu ñoo nekk di réglé seen compte ak moom jël nañ portable am gis ñu dara ñoom pour ñoom moo leen def leen enregistré loolu indi coow lii lépp ñu naan ay bookar yàgg du bookar yàgg. Moussa Fall gendarme chef gendarme moo ne woon day porter plainte Bokar Yàgg porter plainte wul ana porter Bokar Yàgg mais de nan la ñu mën a tëjee ay nit yoo xam ne amul benn plainte Moussa Fall dafa na woon day porter plainte ñee tëj ko te porter plainte wul ñu tëj euh, li Pape te porter plainte porter plainte wul léegi ñu naan ay Bokar Yàgg dafa yóbbu ay famille am mais Bokar Yàgg porter plainte wul donc lenn kese la. kaay ñu négocier Pape Alé Niang bañ kaay ñu tëj la ñu tëj ko ñu ne ko kaay buñ la génnee nga noppi mu bañ ñu bàyyi ko fa muy grève de fin ñu ne leen mu dee ñu génne ne ko nag ah mais ba léegi topp nañ la de doo wax mu wax ñu jëlaat delloo te duñ ko gaaw a génnewaat déggu leen ma de te duñ ko gaaw a génnewaat c'est juste un règlement de compte personnel présidentiel de la du couple présidentiel ñoo bàyyi foofu Pape Alé Niang tant que Pape Alé Niang assuré wu leen ni bu génnee dina disparaître partout duñ ko bàyyi loolu kese lañ signé moom loolu kese moo mun a ne te loolu kese moo ko fa téyewul te diggante boobu matul une semaine ñu jàppaat ko delloo te dañ koy delloo waa tëj ne ko tànk que signé léegi lu ñu jàppoon sax dootu ñu ko def su contrôle judiciaire rek yooyu amutul léegi moom da ngay bee passé da nga ne da ngay grève de faim ñu bàyyi la bii moom grève de faim ba faatu mais duñ la bàyyi tant que signé woo signé rek moo lay bàyyi te boo ko signé ne euh, euh, dootuma waxate dootuma yëy yàbbi damay seey ñu bàyyi la loolu moo téye Pape Alé nii loolu moo coow loolu mi ngi tàmbale depuis bi ñuy woo Pape Alé ba léegi loolu lañ nekk di dox pour noppiloo ko bu ko accepté sacrifier tout une population au début xaalis lañ lay jéem a jox nga bañ ñu jaay doole bu dee foofu nga nekk waxoon naa leen ko ci njëlbeen man ne la ñett façon moo am ñett noonu la ñuy xeexee Ousmane Sonko man Pape Alé Niang ñun ñett ñii on est les ennemis de la république les ennemis du pouvoir ku ci nekk dafa am lu ñuy xeexee ak yow Ousmane Sonko dañoo ko taqal jiiñ ko lu mu deful yooyul yàggiwu yàbbiwu ci ñu téye dossier am nii moom fu ne am na fu ñu ko téye nangu po passeport am am fu ñu ko téye di rayanteeg moom. ñu kuñ deuxième ku ñu attaqué Pape Alé la jàpp nañ ko moom te téye tëj ci kaso yi keneen ki man la jéem nañoo jël yóbbu mu tëleen ñu lan moo fi des sëriñtu point <laughs> ku ci rek dafa am mais ñoom yoon boobu ñu ngi ci dafa am ay yoon yu ñuy toppaatee yoon dafa am yoon yu ñuy toppaatee dañ lay topp ci yoon yoon bii ni ni fii yoon moo fi jëlee nit ñu ne yoon bi cóol na sëriñtu parce que fii kenn amul fitu dugg fii naan da rey nit amut ku la wax loolu day fenn kenn amul fitu fii fii c'est des pays très sécurisés très forts de pays yu am fulla yu am fayda yu kenn yabul yu juróom-ñaari xelu Macky Sall mayul fit mu naan day yónni nit pour mu jéem a sàkkal pexe kenn fii juróom-ñaar yu fitu Macky Sall yu mu am di ko def Sénégal amul juróom-ñaari fitam amu ko taxaw fii ci dëkk bu day nii Canada ak ni ñuy liggéey ak lu ñu defar seen réew ak fu ñu ko tollale ci ci ci sécurité fu ñu ko tollale ci am am fu ñu ko tollale ci pouvoir benn doomu aadama jóge Sénégal naan da ngay jéem a jéem a fay nit mu naan day def tentative waxuma la rey de tentative de meurtre wa boo ko defee <laughs> doo ko dollee ci ci réew doo ko dollee ci ci fii ci <laughs> du Amérique fii moo ëpp junni yoon sécurité Amérique fii fii Canada fii moo ko ëpp junni sécurité du moromam ci niveau de sécurité ci ay vie humaine nuñ ko respecté du caaxaan Macky Sall boo ko fayoon mille milliards laaloo amul fitu naan day yónnee fii benn nit naan day day sàkkal pexe xalaatu ko xelam juróom ñaari xelam xalaatu ko comme amuñu moyen boobu loolu moo tax ñuy sëriñtu bon sëriñtu rek lañu am dañ ciy nekk suba ngoon guddeeg bëccëg donc Pape Alé Niang loolu lañ ko téye loolu négociation ñett yi lañ am dama ne négociation jaay doole ak sëriñtu dama leen koy répété waat yàgg naa leen ko wax de ma ne leen gouvernement sénégalais ñett yi la am képp kuy téeréer di ko sonnal ñett yi la lay def négociation jaay doole sëriñtu Pape Alé Niang ci loolu la njëkk ñëw négociation mu bañ ñu jaay ko doole mu jàpp ko man ñu négocier ma bañ ñoom Marème Faye Macky Sall négociation ma bañ jaay doole gouvernement canadien bi bañ sëriñtu man maa ngi ci troisième étape Pape Alé yeggul yeggul sax ci troisième étape moom deuxième étape lañ ko wàccee population waroon mun a am nuñ taxawoo Ousmane Sonko négociation réussirul complot ci complot bi lañ nekk ak sëriñtu moom ñett yëpp da koy dund négociation bi ay nitam doxut complot mi ngi fi doxut ak sëriñtu moom ñetti yëpp lay dund moom ñetti état yëpp lay dund négociation jàllul complot ña nga ci di rayante ak moom ak sëriñtu ñett yi lañ am ñoom ñetti stratégie yi lañ am négociation la njëkk a ñëwee di wax ak man di neexal gars yi non kaa ñu jox la lii kaa ñu jox la laa lépp lu ñu wax ma génne nee nañ ma lii de proposé nañ ma fii proposé nañ ma faa nee nañ nañ ma jox lii bëgg nañ ma jox laa donc ñu ngi négocier doxut boobu ba léegi ça fait ça fait six mois ñi ngi négocier doxut complot def ay dossier monté sànni fii Canada delloo leen ñu fenaat sànni Canada delloo leen ñu fenaat sa Canada delloo leen ñu am jaam ñu ne toog ne ah kii moom nañ ko may jaam kii moom mënuñu faa léegi sëriñtu man tam maa ngi ci troisième étape sëriñtu donc nii la ñuy liggéey ak doomu aadama yi donc sénégalais yi encore une fois ñi nga xam ne ñi ngi sonn di rayante di xeex buñ leen déstabiliser képp ku mën a nekk ci xeex bi na nekk ci xeex bi jàppale doomu aadama yi ci xeex bi bañ a toog fi nga toog di déstabiliser ak sànni le discrédit ci xeex bi doomu aadama yi ñu ngi sacrifier ay papay jàmbur lañ ay yaayu jàmbur lañ ay jëkkëru jàmbur lañ ay jabaru jàmbur lañ ay doomu jàmbur lañ dafa naqari ñi jàpp leen di leen toroxal di leen tëj ay nit yu am liberté toog fu ñu toog war leen xeexal di leen yàq loolu neexut nit bu rayante ba dee sa sécurité nekkul ci euh, amoo sécurité ñi lay sëriñtu di la xeex di la jéem a rey di la jéem a éliminer di la jéem a tëj di def ngay daj lu mburu dajul ci fuur waa ji am liberté am toog ci portable am di yàq non stratégie bu mu jël baaxul non waru faa dem non waru fa kii non waru fa lekk ceeb non waru fa non liberté bi nga am dafa am ñu ko xeex liberté bi nga am tey dafa am ñu ko xeex moom dafa doon sacrifier pour nga libéré wu donc sa libération war la mun a pousser ci aadi ko saaga sa libération war la mun a may moom moo sacrifier wu pour nga libre yow yow bu fekkoon ni yow buggoon nga mel ni moom da ngay dem joxe sa bopp yow tamit comme yaa ngi toog fu nga toog nekk en sécurité donc war la mun a tax ngay nga koy songu parce que moom au moins dafa jaay boppam dafa jaay bakkanam dafa tay la yaayam tay la ay doomam tay la jabaram tay la ay jëkkëram lépp pour dugg pour dund li muy dund donc vraiment sa liberté warul la may a ce que nga koy attaqué boo ko mënul défendre waroo ko attaqué boo ko mënul défendre waroo ko attaqué li muy daj xam na ko li muy jël ay xaalisam di ko def ci ay sëriñ di xeex contre sëriñu ñooñu moom yow musula woo nga dimbale ko ci te mi ngi ci daj lu ne il sort des millions di xeex ak ñoom ñoom ay milliardaire lañ yiy xeex yow pour wàcce la pour tëral la pour rendi la pour éliminer la mystiquement ngay jël sa alal di saa yu ñu defee pexe nga génne ay sarax ay sarax yu am doole ay xaalis yu bëri ngay saraxe di di di di seen seen pexe di faxas seen pexe li ngay daj toog te mënoo ko wax kenn lu Ousmane Sonko di daj te mënu ko wax kenn benn nit bu ko toog fee bu ko jàpp Ousmane Sonko di ko di ko fooyee quoi non non euh, nu nu mu def stratégie bi moom baaxul ko non nu mu taxawee warul nu taxawee ne quoi mais saa yow da nga libre moo tax ngay wax lu ngay wax boo nekkoon ci situation bu mu nee doo waxee nii dangaa toog lekk sa sa biir fees dal nga naan sa xel mu dal nga taxaw di wax koo xam ni mi ngi ci en danger mi ngi fexe nu mu génnee foofu nekk si ci embuscade nu mu ci génnee nga taxaw fee rek di ko di wax lu la neex yow. toog fu am sécurité nekk si jàmm jàpp ko di ko mais boo mënul jàppale Ousmane Sonko bi nga xam ne ñu ngi koy xeex di ko fexeel muy rëcc ay pexe yoo xam ne waxuloo ko chaque jour yu tëral ko embuscade mu rëcc ko tël tël te yow du la wax dara nga toog fa nga toog naa non stratégie bu mu def baaxul nu mu génnee waru génnee nii non fii wax def na erreur nu muy waxee man des fois ma gisaloo damay ree quoi Ousmane Sonko ñëw am lu muy wax lu leer naññ comme comme bu mu defee discours bi ne elle a été correcte Adji Sarr noppi Adji Sarr saagawul xas teewul deful dara am ñin non foofu mu nanguwuma quoi non Ousmane warul wax loolu mais Ousmane lu mu wax waxul Adji saar dafa baax Adji Sarr yow la nax Adji Sarr dafa génn ne la moom gis neen usman sax nee na dama baax Ousmane waxul dafa baax daf ne ella a été correcte dem naa jàkkaarloog moom elle a été correcte mais ngi toog yow yow ak lekk ba sa biir fees naan ba mandi ba sa toll fii kenn kenn bu maxu la kenn yuuxuwu la nga toog fu nga toog naan non non foofu ma ànduma ci war ko wax war ko tudd war ko <laughs> non mais sa jàmm moo bari moo tax boo nekkoon ci digg guerre gars yi embuscade yeeg yooyu puus dóor bal nga ricc yow xoolal boo fekkee kuy wax loolu sax da nga naan yóbbu leen ma ko fële kii du nitu dara war a ñëw jàppale ma ci xeex bi ñëw ñëw di di di ma yàq wala toog fu mu toog di sànni la discrédit wala naan ay di jaay xam-xam mel ni moom moom moo bàyyi moo jur ku ku musul xalaat wala ku lu muy xalaat kenn du ko xalaat naan na non dafa juum fii warul waxee nii eh. waaye xeex am na fu ñuy toll amul dafa juum ngay ñëw jàpp soutenir niir ngay ñëw taxawu ko doo sax am temps wu toog naan dafa juum lii da ngay ñëw ànd ak moom ci loolu da ñëw ànd ak moom ci loolu dem a fond joxe sa xel joxe sa xol joxe sa xëdër joxe lépp doo gis ay dëfa dëfa lu ko dal dal la lu ko dal la tël bu koy dal dal dal la bu lu koy ñoppati ñoppati lu ko metti metti la nga nekk ci dëgg bi doon moom mu doon yow loolu mooy xeex mais tant yaa ngi toog fee muy toog fee nga koy xool naan eh lee la def lii erreur la lii mooy wane ne yow nekkoo ci moom man Ousmane Sonko mënatuma gis erreur ci moom parce que dama dugg ci moom doon moom mu doon man munu fi def dara ba ma taxaw ne erreur la parce que damay gis ni lépp lu ko dal daf ma war a dal lépp lu ko rëcc daf may rëcc man ak moom ñoo bokk benn xeex mais dans la main tànk ak tànk mbagg ak mbagg pôle épaule contre épaule ñuy xeex ay assassin di xeex ak ay criminel amul lu ma ko war a déclarer amul lu ma war a wax ni lii la dafa la la ñoo bokk la main dans la main nii accroché main dans la main accroché accroché mais ñu nekk au devant di xeex di jàpp ñi dóor ñi mu ëttu di song di kooku doo kooku nekk ci digg xeex mënul toog naan kii dafa juum kee ki nekk ci kër ga mooy toog di wax ki nekk ci terrain bi daa juumam juumul nee leen ko na jóg dem xeexi te bàyyi toog fu mu toog ci pojju ndayam ci pojju ndayam ak ci pojju ga naan ay feekee fee da la fii erreur la non fii bu ko defee naa nekk jógal xeexi da nga bàyyi toog fu nga toog naan dangay ngay commentaire ki nekk ci match bi bokk la ku toog ci euh, ginnaaw ordinateur am di commenter ballon récupéré par kii attention oh yaa fait une erreur moom mi nekk ci terrain ba yow buñ la wàccee woon nga def junni erreur juróom-ñaar mu nekk ci terrain bi di rey boppam yow nga toog fu nga toog jàkkaarloo sa sol sa kos karawaan jàkkaarloo sa sa télé di commenter ballon récupéré par il passe kii Fadiga ay yaa faute ay yaa ay yaa il a fait une erreur demal ci terrain ba di nga def junni erreur yow yaa ku teel a dee ngay doon yow sax doo def erreur da ngay dugg rek ñu rey la nga toog fa nga toog mu nooy nepp nga toog foofu day mu nooy nepp kenn nekkoo en kenn dàqewu la kenn reyu la nga toog fu nga toog di critiquer waate Ousmane Sonko wax lu leer naññ na Adji Sarr a été correct waxul Adji Sarr dafa raw dafa yaru de a été correct ce jour là li mu gis la wax ndaw si dafa ñëw toog noppi du si gis a xool calme mu ne elle a été correcte point nit ki ñëwul ànd ak moom xeex mënuma accepter Pape Alé Niang ak lu muy daj ay nit di génn naan woy erreur bu mu def warul dem fii warul dem faa dañoo bari ay problème mu égo am na ñoo xam ne même pop Alé la fekk mu def live bi nga xam ne live bi moom sax moo ma ko wax de am na ñu mu metti parce que peut-être ah Pape Alé ñëwul seen live non l'erreur que Pape Alé Niang a fait mooy live bu ma dem ci Mollah waroon dem ci live Mollah kan kon sa boss la waroon ñëw ah da mu live da nga problème mu vue problème mu siiw da nga mu taxaw da problème mu crédibilité nit yi amuñu loolu nit yi taluñu ko sax dafa am xam ne problème mu crédibilité soo xor live bu waa ji def non live bu mu def mooy erreur monumentale waru ko def nga ne ko lu tax. non waru ko woon def dafa waroon toog quoi moom moom problème mu live la am problème mu view la am moom problème mu like la am moom problème mu followers la am moom problème mu àdduna la am te ñun dañu dépassé loolu jalousie haine rancune soxor ñun dépassé nañ loolu bro bro on a dépassé ces étapes Mollah Morgun ñëwul def live c'est un homme bu siiw Sénégal di rap di feesal ay concert di feesal ay stade junni doomu bu ñu taxawoon fii jaaxaluma fukki junni doomu aadama buñ taxawoon fii mat un un million yéemu ma noonu laay nu ma yéegee laay wàccee dem sama dama ko dama ko tàmm donc munuma ma fii gis deux mille cinq cent wala trois mille wala quatre mille di tiit ñi may woo sax naan ma non Compère, des fois, quoi, tu as cassé la baraque. Quand j'ai euh, totalisé, tu as eu 1 million 700 qui te regardaient. Donc, des fois, moi, boy, yo, yo, mënoo comprendre fan ban niveau nga toll. jamono ji on dit Ousmane ko yow la ñu wax yow niveau bi nga toll il faut nga xam ko mais moom affaire bi dafa yéemu ci moom fekk man ci man saful dara dama ko dama ko màggee dama ko màggaale rappeur laa ku xam public kuy ku rap ci ay stade ku rap ci show of the year ku rap alliance ba gars yi wër miir yi fees mel ni ay mel ni ay nu mu muus ay weñ foo sànni matt mu tàkk rap fu ne rap Ziguinchor stade du fees dall rap Louga stade du fees dall rap Matam stade du fees dall rap Tamba stade du fees dall rap nit lañ xam dañoo miin ci mit ci laa màgge awma mit boobu nekkatul ci man awma problème de vue aw amu problème mu aw amu problème mu like amu problème mu bëgg ma amu dama ci laa màggee loolu rek laa xam dans ma vie fu ma dem ni topp ma dama ko xam maîtriser ko mu nekk ci man donc man amu problème boobu am ñu bëgg a sosal Pape Alé sax na oui laay bu mu dem la c'est l'erreur monumentale comment explique-toi explique-toi soyons un peu sérieux ñu nekk ci xeex bi focus Pape Alé Niang c'est un vrai soldat arrêtons de tirer sur des soldats di leen sosal ak fenal chaque jour ma wax ko am na fu ñu toll ci xeex bi on doit s'unir unis unissons-nous unissons-nous nañ booloo ci xol walla ci vision soxlawul ñuy ñuy gisante ci xol ci vision ci yëg-yëg spirituellement mentalement ñu bokk xeex bi di supportante ci xol ci xol ci xol waxuma ay wax de ci xol di supportante ci xol di jàppalante ci xol di yéenante jàmm ci xol te xam ne ku fi nekk am nga sa mission di nga ko matal dem sa yoon yàlla nag moo yama moo moo bind yamalewul mooy jël kii def fii jël kii def fii jël kii def fii ku ci nekk dangay xam ni fa nga toll foofu la la yàlla def man bu ma defoon live mu am 10 millions de vues safuma dara parce que gañewu ma ci tous musuma lekk un franc ci live donc man ay vues intéressé wu ma jaayu ma vue jëndu ma li muy daj soutien la soxla soutien la soxla soxlawul di di ko yàq wala di jaay xam-xam wala di sànni le discrédit sur le combat là loolu amul sens nit yi ñi ngi daj lu nekk ci xeex bi te mënuñu wax lépp ñi ngi di ngi seen alal te mënuñu wax lépp xeex bu doy waar la xeex bu doy waar xeex bu metti la xeex bu bëri ay coup xeex boo xam ni sawaay caax boo caaxaane dee parce que ñi ngi amal affaire c'est des charognards c'est des vampires ay dëmm nooxoo infiro laqar jaaxum lañ ay lekkatu nit lañ seeni pexe du jeex fu ñuy yeewu ñu ngi lay pexe fu ñuy yeewu donc restons concentrés restons unis restons ensemble nañ bàyyi di jeter le discrédit bu fekkoon ku nekk la nga am wax ko kon dëkk bi tàkk la nga fa nga toog bay wax am na koo xam ni ma nga toog moom xam loo xam ni bu ko waxoon yoo tamit léegi nga daw wala nga làqatu mais c'est pas du du c'est pas du l'heure du waxtoom xaw ma ba xam comprendre du waxtoom luñ fiy dégg te luñ ko wax moo ëpp luñ fiy dégg di ko wax ndax ba ma xamee Pape Alé Niang mu demoon foofu audience boobu moo indi lii yëpp problème boobu nag moo indi lii lépp moom lañ ko toppee pour négociation parce que moment boobu lañ commencé di négocier ak moom te pourtant maa ngi maa ngi dëgg ñu toog parce que j'ai confiance amee mes gars j'ai confiance aux combattants j'ai confiance ak ñii xeex j'ai confiance aux sénégalais épris de justice confiance ma am ci moom mooy moo waral du lu ma dégg rek wax leen ko. dama gëm ni am naa confiance ci ñoom dama gëm ni gënuma leen bëgg combat bi dama leen dama gën dama gëm ni gënuma leen bëgg souveraineté dama gëm ni gënuma leen bëgg liberté dama gëm ni bëgguma leen a bëgg ñu ñu libérer ce peuple moo tax damay am benn confiance boo xam ne benn marge boo xam ne dama leen koy joxe cër ne ñii duñ ma trahir ñii duñ ma fenn ñii dama leen koy jox ak lu ma mun a dégg damay dëxañu toog bëri na lu ma dégg ak bëri na lu ma xam bëri na te yu bëri dañ la koy jox pour nga décrédibiliser sa groupe mais du ko génne ñu bëri koo xam dañ ma koy wax pour ma décrédibiliser sama groupe wala ma sànni le discrédit dina am benn part de vérité mais dama koy dëxëñ dama naan est-ce que bu ma ko waxee am na njëriñ wala ki ma ko bëgg a waxal ma waxal ak moom li ma ko war a waxal mais chaque jour que Dieu fait man ay doomu aadama nee naa leen ñu ngi ci système bi dañ may woo di ma wax lépp laa xam lépp fii réew mi lépp laa xam maa ngi au cœur du système et je le dis haut et maa ngi au cœur du système nee naa leen père damay toog trois semaines quatre semaines du ma ko déggati léegi te ba chaque jour ma indil leen des de des des des yu tàng jër soxla père moom léegi day dafa coiffé rek dafa coiffé rek waxatuma sax ak moo ça fait longtemps du ñu wax wala des fois message dañuy dóorante taf-taf parce que fu ma dugal fa ma dugg nii nii nii nii nii nii nii maa ngi au cœur du système lu fay daw xam naa ko luñ fa teg xam naa ko très renseigné très renseigné au cœur du système maa nga fa toog daf teg te ñu poussé ma pour ma génn yenn yi lu tax mu génn malgré que dañuy ñoom bu ma dóoree dañuy yónnee contre contre euh, euh, contre contre ay ay éléments yoo xam ni pour contre li ma wax la pour ma ñëw day dañuy prêcher le faux pour avoir di vrai damay ñëw ne leen Adji Sarr mi ngi fii ñoom ñu ñëw yónni seen nit ne Adji Sarr a disparu gars yi bëgg a dem ci Adji Sarr a disparu te Adji Sarr nekk ak ay garde ñu koy topp muy disparaître noonu comme ça tak ma ñëw ñu yónni Gabriel Kane le 12 mu war a dem New York mu ñëw ne leen dama accidenté ma ñëw ma jot information ci biir seen biir ñu ne ma seen foo accidenté wul de bu léeg léeg lii la ma daw ñu ne accidenté wul le 12 bii nii lay lay voyagé. gars yi di werante te média yëpp dem accentué wu ci nax bi waaye dafa accidenté dafa accidenté dafa accidenté mi ngi hôpital dafa nangam ma ñëw ne leen accidenté wul et pourtant ñii ñoo nekk ak ñoom ñoom du ñu réeroo. donc man information moo ko jëlee fii da nga gëm ni kii nii lim la bëgg nax am na ku muy àndal koo xam ne mu ngi may jox man bu nee def ak accidenté am ku ma yónnee ma accidenté wul ah waaw kay xaar ma yónnee la euh, biem le douze ci guddi lay dem mu ne vrit biem ma xool Gabriel Kane di dem le douze New York ma ne ah ok d'accord le douze lay dem kon accidenté wu non dara dalu ko le douze boobu noonu kon moom réeral na leen gaa yi ngi koy wër ci hôpital yi moom mi ngi sangu ba set solu di dugg avion mu dugg New York ma ne leen ah mi ngi New York mu dem Washington pour gisante ak Macky Sall ma ne leen mi ngi Washington mu gisee ak Macky Sall ma ne leen mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi gisee ak Macky Sall donc moom ci boobu xam ni kii il est super renseigné. mais il faut affaire génn pour ñoom ñi mën a dawaat ñëwaat non Mollah moom Mollah kii l'informe Mollah baal ñu non Mollah du nit non Mollah ku ko moytuwul non non du ma waxantu te du ma wutumay nit wutumay j'aime wutumay abonnement lu ma for dama leen di indil te ba jusqu'à l'extinction du soleil kenn mënu ko dindi jusqu'à l'extinction du soleil kenn mënul dindi li may wax benn yaay juróogul Sénégal doom bu mun a dindi li may wax benn yaay juróogul doom bu mun a teggi li may wax waxuma la vaar bu mun a teggi li may wax ci suis au cœur du système di fa jël ay information di xam kañ lay dem fan la dem fan la nekkoon <laughs> informé ba informe ñeneen ma dégganteeg sama grand bi Ousmane Tunkara ne ko Gabriel mi ngi foofu de man gisagu ma ko fi dégg ko ma ne ko déedéet dafa ñëw rek bës mu ngi Washington mais bu paree ak Macky Sall dina ñëw New York loolu man maa ko informé Ousmane Tunkara man maa ko ko informé maa ko informé Ousmane Tounkara maa ko ne Gabi ñëw na fa mais dafa bës Washington mais balaa nga koo gisaat ba boo foofu New York bu fa duggaatee dafa retourné Washington après bu gisantee Macky Sall doog ñëwaat te noonu la demee <laughs> mais man booy daf ma jaaxal booy booy man dama nekk New York sax yooyu amee informé fii ma ne ko non man seeni déplacement laa lay jox kay dugg na fii génn na fii toog na fii ñëw na fii fu mu toog fii la toogee nii toogee man seeni information laa lay jox après dem sama yoon nekkuma sax di lijjanti et pourtant Gabriel Kane daa foog ni sax Ousmane moo ma jox parce que bu ma waxee ni accidenté wul ba mu waxee ne day dem New York le treize lépp ba ma ko waxee moom Gabriel Kane screenshot na dem na ba ci sama page screenshot ko screenshot tak tak tak tak jël ko sànni Ousmane sànni ko Ousmane di ko bugg a xamal ne xanaa li yow yaa wax kii Ousmane xool gis affaire ne waa mais <laughs> lii nu kii lu mu bëgg a fii ne ko mais yow lii lan la na ah non dama gis moo laa mu ne waa mais après mais man est-ce que ni kii c'est pas pour rien ñu koy woowee procureur ne Gabriel Kane c'est pas pour rien ñuy woowee kii procureur yow sa bopp yaa ne kii ku moo gën a informé kuy informé yow yaa ko wax noonu si suñu live ñëpp di ko dégg noonu ni nga xamee ni noonu la informé noonu laa xamee bëri na ay wax yoo xam ne ci moom laa koy jëlee donc lu tax nga screenshot yi dama ko yónnee comme si man maa man waxuma dara de man ci moom laa jëlee man damay dem ci live am di la di dégg loo xam ni mosuma ko dégg ci moom laa jëlee information na nga dem ba ba mu xam moom nga waroon dem contacter mu wax la fu mu ko jëlee mais man xaw ma ko de li ma yónnee nii xaw ma ko sax yëguma ko moom mooy dem wuti ay information bi indi ni ngay dégloo laay dégloo na ngay dégloo laay dégloo loolu la ko Ousmane wax parce que damay informé wu bu Kabiré Kane ñëwee di wax ay waxu entreprise immobilier ou immobilière maa ko taxaw ne ko da ngay fenn amoo entreprise immobilière yor naa ci trois ma ne ko da ngay fenn amoo ko entreprise babysitting nga am te entreprise bi musul dox musul fonctionner zéro musul amul amul fond de roulement mu dem na karaj karaj ki yar ko mais amul ku mu ko ku mu ko yónnee karaj karaj dem waaw moo laa moom war ngeen xool toog bu nekk fii moom toog bu nekk fii ci dëkk bi war nañ koo lijjanti Mollah mii lu waaye def bu duggee duus sax mu génne Mollah ku puub mu wax ku doxat mu wax war ngeen wax ni vraiment war ngeen xool taux bu war ngeen ko lijjanti fii moom fii moom ça pue des taux ça pue des taux moom Gabriel Kane dugg restaurant toog ak Paco Jackson toog ak Mame Ngor Diazaka ci euh, Café de Rome ma ñëw wax leen la fa am yépp ba mu duggee taxi ba boo dem bay jël mbuus ma ma wax leen lépp mais da koy jaaxal ma ñëw ne Fouta Tampi day dem casino di euh, casino teeru bi presse people yi mën a fen yi génn na Fouta Tampi dellu na Fouta Fouta Tampi musul dellu Fouta dimanche bii passé Fouta Tampi joué na ci machine à sous gagné Fouta Tampi musul dem Fouta mais loolu liggéey fenkat yi fenal dañuy nekk ay presse people yu sonn demuñu fenn kii taxaw dóor benn seize personnes ne maa ko yónnee te musuma yónnee kenn kee taxaw Fuuta Tampi xam nga ñu naan Fuuta Tampi dellu na Fuuta ay fen la fen rek loo liggéey presse people bi fen yàq wax rek ñoom vie la ñuy wër ñoom ko ubbi seen page yi ñoom ko xool seen affaire yi pour am ay j'aime pour am ay like loo liggéey fenkat yi yàq loo liggéey fenkat yi nekk ci ginnaaw dangay topp gars yi benn par benn teeru bi demoon nañ ba dajaloo ba waroon def point de presse ci nit yu may commencé di yàq foofu ak nit yu may wax ak nu muy kalaate ñoom ñu dem waa téeru bi dem ba am ñuñ soupçonné soupçonné dem ba soupçonné ay nit naan kii la kii la di dàq ay nit naan kii bu mu ñëw kii mu fi ñëwati kii bu mu fi ñëwati wallaahi du ñoon ñëpp dimanche bii sama gars yi ñi ngi woon foofu ci biir Fouta Tampi bu ñuy wax bo moment bu ñuy wax naan Fouta Tampi dellu na Fouta di fen musul dem Fouta Fouta Tampi ngi Ndakaaru dimanche boobu génn machine à sous machine xaalis bi génn gañe na parce que alxuraan dimanche bii Fouta Tampi gañe na billaahi wallaahi wa taalaahi moom mi leen di saraxoo ko ñaan gañe na de Fouta Tampi dóorkat bu mag la bu mag a mag a mag dama leen di topp des fois sax ñu gis oto bu la buy dem ñu ñu tiir tàppet lañ na oto bi ñu topp de kii mbaadu ay moolaa ay gars yi moolaa oto yeeg ñuy topp de xoolal oto bi boobu ba léegi mi ñuy topp <laughs> man topp ma leen ak oto de lépp laa leen oto man ay satellite laa yor topp ma leen ak oto de topp ma leen ak moto de ay satellite laa yor da ngeen commencé dof on ab oto sax ñoom Fouta Tampi génn foofu ne oto bi ñu topp de wa oto bi euh, kii di maa yi moo la non topp ma leen Fouta topp ma leen de ay satellite laa yor topp ma leen fenn ay satellite laa yor foo leen dugg ma génne ko loo leen def ma loqati dimanche bii Fouta Tampi bi ñuy wax naan ay dem na Fouta demul Fouta mi ngi foofu casino teeru bi. joué na fa gagné na Macaam ñëw na fa yàggu fa ñëw na fa def fa une heure et fa sax deux heures de demaat Macaam mi nekk ci complot bi il faut que ça soit clair talu ñuy fenn talu ñuy sos ku ñu gëm yaa xam ku ñu gëmul yaa xam bu preuve bi génnee nga yuuxu moo laa nangam balaa ngaa ñëw fekk ma tëj sama bunt ne la tey nga doog a gëm lu may wax demal déggul de déggul leen de fa laay tëjee dama ne duma wax dara ku gëm yaa xam ku gëmul yaa xam waaye man bu ma waxee damay dem du ma wax dara nga dem toog jimmi jamono ba gis dëgg bi ñëw bugg a fëgg sama bunt kun kun kun kun kookan la kun kun kun moo laa ubbil ma moo laa yaa wax dëgg moo laa déedéet du ma la ubbil buntu bi du ma la ubbil buntu bi taluma la yow yaa toog ba jimmi jamono ngay gis euh, dëgg ji di ñëw ñu naan jimmi jimmi jamono jommal na jaam jimmi jimmi jamono jommal na jaam jimmi jamonoy dëgg la waaye ku nalaw dëgg dina la yee lu ñuy wax amuñu ci dara ñëwuñ ci dara dañuy wax te yàlla tax ku gëm yaa xam ku gëmul yaa xam bu dëgg ji ñëwee boo ko jàppee jarul ngay ñëw ci moolaa toogal fa nga toog xam ni moolaa newoon na ma jeex na bul ñëw ci man naan ma moolaa bigëb moolaa waxoon nga lii doo gis duma ko amee partout bu Gabriel Kane defee vidéo bi gis naa gars yi di screenshot dama ko yónnee ci moolaa du ma commenté du ma la sax tontu am naa fulla nag du ma wax samay wax samay dëgg gëmoo nga toog ba jëmmi jamono nga gis ko ñëw bugg tontu du ma tontoonte ak yow de kenn lépp lu ma wax doomu aadama dem ba jëmmi jamono gis ko ñëw naan ma moo laa doo nit suma tontu parce que man ci li ma nekk laa nekk focus sama dëgg ji dama cee nekk gëm ko mu nekk ma xam ni dëgg laay wax te yàlla tax ragaluma ci tiituma ci ku ko gëm yaa xam ko gëmul yaa xam waaye boo toogee di nalaw ba jimmi jamono nga ñëw bugg ma gëmloo ni moo laa la nga doon wax am na du ma la tontu de boo ko bindee message du ma la tontu boo bëgg a woo pour wax ma ni moo laa li nga waxoon dëgg la du ma la jël du ma décrocher lu amoo foo may jaaree da ngay gis sa message daal waaye tontu wu ko gis na ko mais tontu wu ko du ma ko tontu déedéet parce que kon chaque jour dama ciy am ay centaine de milliers yu ñëw centaine de milliers yu ñëw par jour ma tontoo damay dee Mollah septembre premier ministre tak ñu dem septembre ba Sénégal yëpp bëgg a ñëw non Mollah du nit Mollah ma bëgg leen tontu du ma leen tontu kenn du ma ci tontu kenn parce que loolu bu boobaa fa laay fanaan Macky le 12 day dem euh, Washington le 12 bu dem Washington ngeen di oh Mollah euh, Mollah bu ma naree tontu fa foofu laay fanaan de du ma tontu kenn kenn taluma kenn. Gabriel Kane dara dalu ko day dem tàngam mu dem ñëw Mollah du nit Mollah Mollah du ma tontu du ma décourager kenn. bugguma wax ak kenn maa ngi ci sama dëgg jooju la ma nekkoon int kenn intéressé wu ma man noonu laay doxalee donc kenn doo leen du ma wax dara gëmu leen ko wala ngeen ci werante wala ngeen ciy naatable dem jimmi jamono yàlla leeral ko ngeen ñëw ci man bugguma tontu du ma tontu kenn du ma wuyu kenn du ma aimé kenn du ma décroché kenn aw ma jot maa ngi ci beneen moom moment bi ngeen di wax bii man maa ngi wuti beneen bu ma leen indi saaga leen xas leen yuuxu leen dara yëngulu ma saa yu ma leen joxee ngeen di weranteeka naa table am ñu gëm am ñu gëmut du teree damay continuer indil leen leneen parce que kenn amul unanimité te wutuma unanimité yàlla amu ko yonent bi amu ko sallallahu alayhi amu ko benn yonent ci kaw suuf amul unanimité yàlla sax amu ko ñëpp nangu luñ ko ñii yàlla dina wax alxuraanam bi am na ñu ne amut addunaam bii am na ñu ne amut moom mi sax existence am am na ñu ne amut donc bu dee yàlla amul unanimité yonentam amul sallallahu alayhi wa sallam amul unanimité Muhammad ay tam amuñu cent 313 yi amuñu unanimité du man maa koy am man mii ancien spermatozoïde futur cadavre wutuma ko de wutuma ko de jéemuma ko it wóoruma ko it la ñor dinaa ko wax lay dëgg ci man dinaa ko wax ku gëm yaa xam ku gëmut yaa xam salaamualeykum wa rahmatulah taalaa barkaatu di wax Macky sàll mu libéré Pape Alé Niang di wax Macky sàll ak jabaram ñu libéré Pape di waxaat Macky Sall ak jabaram ñu libéré Cheikh Omar Diagne di wax Macky sàll ak jabaram ñu libéré kii di Abdoul Karim Gueye di wax Macky sàll ak jabaram ñu libeere kii di euh, Papito Kara di wax Macky sàll ak jabaram mu libéré kii di Ousmane di wax Macky Sall ak jabaram mu libeere kii di euh, euh, soxna si euh, di di Amy ak képp ku mu sosal ne danga bokk ci force spéciale ñi ngi ñaan Macky Sall ci njëkk ak teranga mu libeere leen ñu dem fekke ji feetu décembre bi en famille ñu ngi leen ñu ko koy ñaan ñu ngi ko koy ñaan peuple bi yëpp ñu ngi ko koy ñaan mu flexible mu bàyyi justice bi mu instrumentaliser mu libéré doomu aadama yi ñu ñibbi seen kër yi seen yaay yi namm nañ leen seen papa yi namm nañ leen seen nijaay yi namm nañ leen seen jabar yi namm nañ leen waaye it seen doom yi namm nañ leen mi ngi xañ ay yaay seen doom mi ngi xañ ay jabar seen jëkkër mi ngi xañ ay doom seen papa mi ngi xañ ay doom seen yaay mi ngi xam xañ ay jëkkër seen jabar mi ngi xañ ay yaay ak ay pàppa seen doom lillahi wa rasuli Macky Sall libérel les otages politiques lillahi wa rasuli Macky Sall libérel les otages politiques les détenus politiques salaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatu ñu ngi leen di gërëm di leen sant dina wax jërëjëf le combat continue à bientôt incha allah macha allah thanks big jarama